الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لعباده الزواج وجعله من أنعم ما يتعبد به الرب سبحانه فله الحمد والمنة على ذلك وأباح سبحانه وتعالى تعدد الزوجات حلا لمشاكل اجتماعية هي من أعقد المشاكل التي تعاني منها الأمم والمجتمعات فلا تجد لها حلا إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلام والأخذ بنظامها ثم أما بعد فهذا بحث أعددته بتوفيق الباري جل في علاه بهذا العنوان القيم عسى أن يكون مساهمة لي في حل مشاكل الأمة المسلمة وقد قسمته حول النقاط التالية أولا مقدمة حول التعدد في الإسلام وغير الإسلام ثانيا كيفية التعدد ومعناه وكم يجوز تزوجها ثالثا كيفية التوفيق بين الآية الآمرة بالعدل والآية النافية وتحته العدل المطلوب رابعا كيف نظم الاسلام الحياه الزوجيه المشتركه يعني التعدد خامسا نبذه من اضرار التعدد سادسا الغيره والكلام عليها سابعا والاخير التوفيقات الربانيه في تعدد الزوجات والله اسال سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم ويرزقنا السداد والاستقامه في القول والعمل إنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا به ثم إنه نعم المولى ونعم النصير mbokk yi nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nu ngi gërëm sunu borom bi mu nu defalee tawfiq ba ñu daje ci barab bu mel nii di ab néeg ci néegu yàlla yi subhanahu wa taala ginnaaw bu ñu jooxee farata joo xam ni borom bi subhanahu wa taala daf koo farataal ci sunu kaw noo ngi ñaan sunu borom mu nangul nu nangul leen comme ni ko mbokk mi waxee waxtaanee lu jëm ci sëy dafa bokk ci waxtaanee mbiri umma bi mbiri umma bi islam bi ndax sëy du jaamu yàlla gu màgg goo xam ni ñu bari ci ñun ni ñu foogee noonu la simple simple wut noonu maanaam du suñu mbiri bopp mbir la moo xam ni borom bi subhanahu wa taala moo ko tër tër wi mu ko tër nag su fekkee nit ñi jaar nañ ca nam ko tëree lu ca am dal nit ki ci échec rek loola ndogal lay tudd waaye su fekkee nit ki jaarewu ko ni ko islam bëgg ñu tëree ko noonu lépp lu ko ca dal kenn du ko tuddee ndogal kenn du ko tuddee nattu waaye dañ koy tuddee wàcc yoonu islam te ku wàcc yoonu islam ku nekk kat lu ne mën na laa dal dëgg la mawdoo bi tënk ko ci sëy ahankay li ñuy waxtaanee ci sëy la waaye sëy yaatu na yaatu goo xam ni yaakaar naa ni ay jataay yu bari mën nañ koo am di ci waxtaan te du jeex amaa lu jëm ci yi nga xam ni moo gën a yitteel wala boog yi jiitu waxtaanee lu mel ni tey foog naa ne lool na waxtaan nañ ci ay jataay yu bari ndax ci li ñuy fàttaliku lu jëm ci wàllu labat ak ni ko islaam jàngalee àq yi ko góor ki ameel ku jigéen ki àq yi ko jigéen ki ameel ku góor ki ak muskilaat yi am ci biir sëy yi koy sabab ak yi koy waral ak ya koy saafara su fekkee juumam ba ma fàtte yi ma wax yépp defe naa def nañ ci ay waxtaan bu tey bii nag mi ngi joy ak saawaam jëm ci at tawfiqatu rabbaniya fi taaddudi zawjaat muy tawfiq yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala daf koo def ci yoon mu yoonal góor mu mën a am lu benn soxna mawduu bu mel nii waxtaanee ko lu am solo la ndax dafa mel ni li nu yëg ñun ñëpp mooy sunuy borom yi xam-xam ak sunuy sëriñ yi jàng ci ñoom bunt bi moom li ñuy faral di wax di ca jëm bariwut te moo ne ci mata wax la bokk ndax jafe-jafe yi ñuy faral di wax ci biir sëy su fekkee bii du waral yépp it bokk na ci waral la ci ëpp ci jafe-jafe yooyu nit mën naa yore benn soxna ci biir këram coow du bari waaye saa bu bëggee jëlaat beneen soxna coow am luy waral coow loolu di am su fekkee dafa dajale ay soxna ci biir kër léeg-léeg coow ëpp su fekkee kenn la yore ci biir kër te it lu ci nekk nag am na lislaam nu mu ko jàngalee moo tax kon sëy borom bi subhanahu wa taala ginnaaw bu mu ko defee mu bokk ci xéewal yi nu koy jaamoo nga xam ngeen ni sëy du suñu biir bopp waaye ci li ñuy jaamoo suñu borom la bokk suñu borom yoonal góor ëppal benn soxna yoonal gi nag mooy mën naa ne waaye tekkiwul ni mooy jug leen dem defi ko mën naa nekk nag bokkut ak jug leen dem defi ko mën naa nekk mooy nit ki bu ko bëggee taman ko mu def ko su ko bëggut mbaa mënu ko su boobaa mu bañ koo def loolu nag bokk na ci li tax sharia yoonal ko mooy dafa am ay jafe-jafe biir këru sëy yoo xam ni ak jafe-jafey société yoo xam ni amut lu ko mën a régler lu dul baril ay soxna loolu moom ñi ko xam xam nañ ko ñi ko réere réere nañ ko dafa am ay muskila yoo xam ne bokk na ci masaakil yi gën a rëy yi umam yi moo xam umam yi nag su ma ko waxee ñi tënku ci lislaam ak ñi tënku ci lislaam moom ñépp ñoo ko bokk pour li jëm ci jafe-jafe yooyu yombut lu dul ubbi bunt bu mel nii mënuñoo am nag solution yu mën a régler jafe-jafe yooyu lu dul dañoo dellu ci njàngale yi islaam ak jël saytu gi nga xamante ni moom la ko saytu lépp loo xam ni dafa tënku ci biiram kon lii ab baxte la boo xam ni dañ koo waajaloon ci bunt bi amaan nañu yaakaar ni buñ ca noppee ànd ak tawfiqi sunu borom dana nekk participation bu rëy ci mën a régler leer de ci jafe-jafe yi nga xam ni ñenn nit ñi ngi koy dudd te fekk na ñàkkoon a xam njàngale islam mooy la koy waral juróom-ñaari tomb ci lañ tënk mawdu ab tey bi bi ci njëkk mooy ab tàmbali ak laytaay goo xam daañ ko def laytaay googu mi ngi tënku ci baril ay soxna ci lislaam ak yeneen diine judut lislaam ndax ñu bari dañu foog ni loolu islaam rek la fekk déedéet islaam daa am ñu ko ci jiitu kon defe naa ku ko ci joxañ baaraamu tuuma loolu daa jërul sax di tontu jërul di tontu ndax loolu ki koy joxañ ku xamut lay doon ñaareelu tomb bi mooy naka la islaam yoonalee bari ay soxna duñ koy defee ak ñaata moo dagan nit ki takk ko ci ay soxna ñetteel bi mooy naka la ñuy dëppalee aaya ji wax ci alquran ni góor mënut fexe ba maandu ci soxna yim yore ndax aaya am na ay ji wax loolu am jeneen aaya joo xam dafay tëkkoo ko tiital ki nga xamante ni moom moo yore ay soxna te maanduwut ñaari aaya yooyu nan lañ leen di dëppalee te ca ron nga am na fasl bu ndaw boo xam ni ñi ngi ko tuddee maanal adlul matlub kon nag léegi maandu giñ soxla moom mooy kan ndax nit ñi tamit dañuy am jafe-jafe ci buntab maandu léeg-léeg ma faral ko wax mbokk yi léeg-léeg nga dégg ku ni dangaa war a yamale sa ñaari soxna yi loolu njumte bu mag la da ngaa war a yamale sa ñetti soxna yi loolu njumte bu mag la yamale ku ko def tooñ suñu borom sax defu ko yamale ak tooñ la maandu te moom la islaam jàngale ndax yamale mooy kenn ku ci nekk la nga ko jox rek moom ngay jox moroomam te am na fu nuy toll foo xam ne duñ tolloo parce que seeni situation bokkul ba ñuy tolloo loolu tamit lu mat a bàyyi xel la juróomeel bi mooy naka la islaam organisé nag dund googee nga xam ni ay jigéen ñoo nekk ci ron keppaaru génn góor juróomeel bi mooy aslëf ci yenn ci lor yoo xam ni nag mën naa am ci baril ay soxna juróom-benneel bi mooy fiir ak yi ci yi ci nit ñi boole te bokku ci ak lan mooy taxawaayu lislaam ak lu mu wax lu mu leeral ci fiir juróom-benneel bi mooy wala juróom-ñaareel bi te mooy bi mujj mooy qalbul mawdu mooy xolub mawdu bi mooy tawfiq yi nga xam ni nag ay kéemtaani yàlla la yoo xam ni borom bi daf koo def ci góor ëppal benn soxna nuy ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu dégg ak topp te it yombalal nu ba lii nga xamante ni moom la ñu waajaloon ñu mën koo faram-fàcce mën koy leeral te it ndimbal ak kattan ci moom rek la mën a bàyyi ko subhaana al nuqtatul ula tomb bu njëkk bi mooy muqaddima ci baril ay soxna ci lislaam ak bi ci lislaam xam ngeen ni waxtaanee baril ay soxna bokk na ci tomb yi mat a waxtaane ndax yu am solo la tey li ko waral mooy bokk na ci yi ko waral bokk da di sabab su tax ñu bari di joxañ islaam di ko teg baaraamu tuuma di wane ni islaam kat dafa tooñ ku jigéen ki daf ko doyadal ah dañ koo jàppee koo xam ni taxut koo am solo lool ci dund gi xasaale ci nag jullit ñi wane ne ñoom kat seen yitte ji gën a rëy ci kaw suuf mooy dajale ay jigéen di bànneexu ci ñoom rek loolu nag ki koy wax damay wax ni ku xamut lay doon ndax yaakaar naa ni yitte ji gën a rëy ci ku gëm yàlla du bari ay soxna déedéet waaye yitte ji gën a rëy ci ki gëm yàlla bokk na ca mooy defar société bu yàqu bi jihaad fi sabilillah yar soxna yi ak doom yi jàngal leen jubbanti leen génn nit ñi ci jaamu gi ñuy jaamu ay jaam yóbbu leen ci jaamu yàlla yi kese yaakaar naa lii mooy yitte ji gën a rëy ju jullit ñi am kon bu ca takk ay soxna bokkee lenn la ci rek waaye du seen yitte ji gën a rëy te it ñooñu di wax kàddu yooyee sax xitaab bii may bëgg a wax ca ñoom la jëm mooy ñooñu dafay wane lii dafay wane seen ak doyat yi ci wane ni ñoom dañoo xamut ndax ku xam dina xam ne islaam moom du moom moo njëkk a yoonal ak taaddud muy baril ay soxna diine yi wàcc ci asamaan du lislaam rek moo ci njëkk a tàmbali may góor mu takk lu ëpp benn soxna dadi kay boo demee ci tawraat nga xam ni yahuud yi dañ koy màggal lool ba tey te chrétiens yi sax di leen ci fekk si ci ay textes yu leer yoo xam ni boo delloo ci tawraat ci ay textes yu leer yoo xam ne yu nu xam la te moo xam li ñuy tuddee ancien testament ak nouveau testament ñaar yépp boo ci dellu nga xam ni wax jii may wax ñoo ca bokk yam borom xam-xam yi dañuy wax ni boo delloo ci sifru takwin da nga cay fekk nettali bii nga xam ni ñoom nan koy waxee laa koy waxee waaye du ñun noonu lañ koy waxee mooy soxna saara te xam ngeen mooy saara te fi nun dafa jëloon jaamam bu jigéen muy haajara jébbal ko borom këram jox ko ko pour mu takk ko deuxième femme mu nekk ñaareelu soxnaam te loola ma nga ca seeni téere kon loola dama jàpp ni tegtal bu wérangoog buy wane ni baril ay soxna amoon na waaye bii sax faf góor gi jugul woon di ko wuti waaye soxna si moo yëkkati woon ab jaamam jox ko ku góor gi te loolu yonent yàlla yi nga xam ni ñoo topp ci Ibrahim dañ ko doon rey ci moom ba nga yegg ci yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam Suleymaan faf moom dafa jéggi sax fañ ko doon foogee moom ndax ñun fi ni ko doon foogee mooy barale na ko kese waaye Suleymaan borom xam-xam yi te loolu ca ñoom seen téere dafa dëppoog mu arrixuuna salaf mu arrixu salaf li ñuy wax ni Suleymaan amoon na junni soxna juróom ñaat téeméeri soxna yoo xam ne ay gor lañ ak ñett téeméeri yoo xam ne ay jaam lañ loolu moom lu wir la loo xam ni sukkandikuñ ca ñoom lan wax waaye lan wax dafa dikk méngóog nun suñuy boromi xam-xam li nu xamal kon yent yàlla Suleymaan alayhi salaam ak ni ngeen ko xamee nguur gu yaatu gi ko suñu borom mayoon li mu amoon ci ay soxna moom dama yaakaar ni baaraam yi ñuy joxoñ yonent bi alayhi salaatu su fekkoon baaraam yu yay yu joxoñ ko ko la dañ ko doon njëkkoon joxoñ Suleymaan ba noppi ndax moo ëppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon gisuñ benn tegtal ginnaaw bu ñu defee ay gëstu nag ginnaaw bu ñu defee ay gëstu yoo xam ne yu xóot la kemtalaay fan mën a yem gisuñ benn tegtal bu wér di wane ni jenn diine ci diine yi jiitu woon islaam dafay tere góor baril ay soxna loolu amut déedéet benn diine nag amut ci diine yi jëkk texte boo xam ni saxiixun sarixun yanha an taaddud loolu amut fi sunu gëstu toll ginnaaw bu ñu ko xóotalee lool gisuñ benn tegtal bu koy wane lu dul ab tegtal bu koy nuuru te du ko ndax boo delloo ci ak talmud nga xam ne benn sarxa la boo xam ni kenn ci kàngami yahud yi moo ko sarxa tawraat ca ngay fekk lu koy nuru te du ko mooy daganul góor te lam wax moom du bu ñu bari ay soxna dañuy daganul góor mu ëppal ñeenti soxna wax ji loolu la wax ñu ne ko luy sa tegtal mu ni toppandoo yent yàlla yaqub ndax paasewul woon ñeenti soxna te it bu fekkee góor gi dafa giñ ñi sama soxna duma ko wutal wujju su boobaa it du dagan mu wutal ko ko lu dul soxna si moo ko jox ndigal te bala ko ko wutal faw ñu dund lu mat fukki at te lii lépp sax nag day du loo du du loo nekk tawaraat waaye ab sarxa la rek boo xam waxi borom xam-xam la ca seen borom xam-xam ñoom te kooka sax dàqut bari ay soxna waaye lam wax mooy ëppal ñeent nga bañ koo def te bu dee loola sax noonu la fax dafay dëppoog islaam beneen bi ci topp moom mooy lu jëm ci masixiya muy diine yi chrétien yi soo delloo amul benn tegtalit nag ginnaaw bu ñu xóotalee gëstu foofa ba nuppi gisuñu benn tegtal boo xam ne bu wér la buy tere ni góor baril ay soxna dafa xaram donte ñoom dañ koy wax waaye boo delloo ci seen bible yi nga xam ne ñoom ca la ñuy ëpp lu ñuy sukkandiku nga xam ne borom xam-xam yi ne nañ bu amee yuñ ñaan tane moo ca tane bible bu ñuy tuddee injilu Matta injilu Yohana ak Markus ak Luqa ñeent yi benn boo ca dem amu ca benn tekkal buñ mën a sukkandiku bu wér buy wane ni dafa xaraam góor ëppal benn soxna te it buñ fàtte ni ñoom buñ fàtte ni Isa daf doon wax ni man ñëwuma pour wàññi la fi newoon ñëwuma pour soppit li fi nekkoon waaye dama ñëw pour mottali moo tax yéen jàngkati Qur'an yi bu ngeen seetloo téere bi subhanahu wa taala li ëpp dafay lënkale tawraat ak injil dafay lënkale tawraat ak alquran te injil a dox ci diggante bi waaye dañuy tëb injil di lënkale alquran ak tawraat li ko waral mooy ñoom ñaar dañoo méngoo ci ay mbir yu bari tey injil dafa ñëw pour muttali ñëwul pour yeesalaat beneen bi ci topp moom mooy ñi nga xam ne ñooy sànni ay baat ci bari ay soxna di ko jëmale ci islam ak ñooñ islam ñooñu dañ leen di wax ni loolu day wane ne ak doye di guy wane ñàkk xóotal ci ay gëstu la ndax bu ñu xóotaloon ciy gëstu danañ xam ni aw doxalin la moom baril ay soxna wu jiitu sax nag islam faf woo xam ni waxuma mbiru diine yi mbiru société yi rek niñ doon dundee suub yi ñuy tudde al abraniyuun ak arab yi ca seen ceddo ga avant l'islam ak suubu saqa saqaaliba nga xam ni tur yooyu bu siiwatu tey mën naa la koo tënkal ni la réew yi may bëgg lim ca ñooña la ñu soqee ko Russie muy Russia Lituania Yougoslavie ak Tchécoslavia ak Nimsa ak Suisse Belgique Hollande Suède Angleterre Norvège yii ma lim yépp amu ci benn boo jàng taarixam histoire am ca lu yàgg la lu dul da ngay fekk ni bari ay soxna lu ñu xamoon la ñoom doon ko dund te ji réew yi ma lim moom defe naa du woon ay réew yu ñu xamee lislaam di ko jàng bu dee ci ñun ni ñuy faral di waxee mooy réew tugal yi ñaareel bi moom mooy lu jiitu lislaam it nag arab yi ci seen jëmmi bopp ñoom dafa bokkoon ci ngóora dafa bokkoon ci ngóora bari doom sëqub sikkim bari soxna ñett yi daa bokkoon ci yi nekkoon ngóora ci arab yi lu jiitu lislaam ah waaw lislaam moom bu ñëwee fekk fi lii lépp moom kon bu ñëwee indiwut lu bees moo tax bi islaam ñëwee fekk nag ñooña dëgg la jiitu nañ ko ci yoonal attaaddud muy baril ay soxna waaye nag organiser wuñ ko bal kay ñiy wax wax ji dafay këpp ci seen kaw ndax ñooña ñi yoonal góor bari ay soxna te tënkuñu ko organiser wuñ ko ndax tënkuñ ko mooy lu neex góor gi ci ay soxna bu leen mënee yor ak bu leen mënta yor na takk organiser wuñ ko mooy lu la neex nga koy defee islam mi ñëw tënk ko organiser woo ko damaa jàpp ni kooku lañ amee njukkal moom. kon islam bi mu ñëwee dafa yoonal mbir mi ba noppi organiser ko tënk ko ci fii ma toog rek ci li may teewlu defe naa après deuxième guerre mondiale yaakaar naa réew yi may bëgg a lim France ak Allemagne même Allemagne gis nga boo demee Allemagne Allemagne après deuxième guerre mondiale dañu seetlu ni société bi li dee ci ay góor dañoo bari torop torop torop ba jéggi dayoo ah léegi comme góor yu bari dee nañ ni ñuy def mooy nañ permettre nit ku mu neex na takk lu ëpp ñetti soxna lii may wax boo jàngee taarixu Allemagne dellu ci ñi nga xam ne même bu ñu waxalul l'islam sax moom dinañ wax dëgg rek dinañ la wax lii yoonal góor mu am lu mat ñetti soxna sabab si mooy góor ñi dee nañ te góor mooy doole société kon buñ ci jubluwut léegi xay am am na benn historien bu mag muy Paul Schmidt ci waa Allemagne la soo delloo ci atum 1936 am na benn téere bu mu taalifoon tuddee ko al islaamu quwatul gadi islaam daal dëgg-dëgg bu ñu sàgganee moo nar a yore doole ëllëg moom dañuy islaam bu ñu sàgganee doole ëllëg moo ko nar a yore ci téere boobu boo ci delloo dafay indi facteurs yi tax sabab yi tax jullit ñi yi tax jullit ñi ñu nar a dominer addina bi bokk na ci mooy nangu guñ nangoo takk ay soxna yu bari te di am ay doom te moom nee na d'accord nañ ci loolu ci sabab yi mën a tax nit gaaw a dominer addina bi la bokk ci sabab yi mën a tax nit yilif ay moroomam ca la bokk même bu bokkul ci lislaam sax nangu na loola moom bokk na ci yiy wane ni l'islam ci boppam moom rek mooy solution bi mën a génne jullit ñi gëm yàlla ci ak ñeneen ñu dul ñoom ci jafe-jafe yii mooy xam ngeen ni actuellement nii fi ñu toog yi ma doon wax taarix la li may wax nag moom mooy li ñuy dund actuellement am na réew yoo xam ni jigéen yi nangoo am doom boo demee France wala yu ni mel dañ leen di jox ay neexal defe naa loolu nit ñi xam nañ ko moom li ko waral mooy góor ñi dañ leen a tënk ba duñ ëppal benn soxna ñaareel mooy seeni jigéen nanguwuñoo am doom te ñoom ñoo la gën a xam ni dañoo soxla ay peuple peuple bu bu yaatu léegi pour ñu nangu jàngalee l'islam loolu soxor xol la léegi faw ñu jëm koo jaaree feneen loolu mooy wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa mooy bañuk làmmiñ nangu xol léegi faw ñu fexe léegi jigéen ji bu nangoo am doom ñi di ko jox ay neexal pour muy gaaw a sawar di am doom loolu boo jàlloon ca la lislaam yoonal defe naa neexal kenn du la ci fekk te léppay sutti moo tax xulul yi islam rek moo ko mën a indi kon am na benn borom xam-xam maa ngi koy déglu muy nettali ci benn cassette xam naa li ma teewlul mooy ban dëkk la ci dëkk yi waaye pour wan la ni la maanaam nit ñi dañuy dem ba jaaxle au lieu que ñu dem ci l'islam déedéet dañuy jéem a seet fu ñu teggee ji far musiba dal leen am na benn réew boo xam ni bi ñu jógee ci guerre bu metti bu ñu doon guerre dañoo gis ni daanaka góori dëkk moom dee nañ seeni cadre yu tëju ni nan la ñuy def pour régler situation boobu bi ñu gëstoo ba xel yi génn xel yooyu mooy xeli iblis yi rek ñu gis ni léegi nañ permettre léegi daal amul maam xawma mariage sans frontière ngeen koy wax amul tënku léegi amul jabar amul benn amul ñaar sa soo jotee sa yaay àndal ak moom soo jotee sa mag àndal ak moom koo jot àndal ak moom gis koo xam rakkam lay àndal kii ànd ak yaayam kii ànd ak bàjjanam kii ànd ak tàntam pour le peuple bi gën a bari suñu borom yebal ci ñoom benn xeeti yamb dëkk boo xam ni comme yi ak yamb la bu dikkee bu la màttee fenn rek affaire day commencé di wal nekk góom di di yàq yaram bi di yàq yaram ba nga xëy dee kaset boobu borom xam mi ngi nekk li ci tooñ ak musiba yi ci mën a juddoo ci fi mu mujjee ala kulli xaal mu leeral ni ba kenn dëkk bu région la ci am jamaat yu demee noonu kenn mucc ca mu génn bi mu génnee mu daw làqatu ji dem màkk bi muy génn nag dajale na ci or lu bare bare bare bare daal di koy denc ci benn place dem màkk am fa fukki at bu fukki at yi jàllee ñi ma wula delluwaat ci dëkk ba ndax kiimaanu yàlla yam gisoon mu woo benn waay fay ko tegtal ko ni ko boo demee ci barab boobu nga génneel ma loola waaja dem daal di sulli génne affaire ba ñëw nekkete benn yamb moom ma nga dugg ca biir kees ga di ko xaar pour mu jël wàllam ginnaaw fukki at yi jàll bi mu yegsee moom dafa ubbi kees gi rek affaire bi ni ko tax ci kanam gi moom fa la jaaree dem àlaxir mu jàng aay ji wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu zalimun kon léeg-léeg société danañ jaaxle au lieu que ñu dellu ci l'islam déedéet waaye bañ islam dana tax ñu jéem a wut yeneen solution waaye du sotti kon muqaddima jooju defe naa leer na ci wane ni kon islam jiituwu ci ci yoonal baril ay soxna ñaareel bi moom mooy dana wane tamit ni l'islam ci boppam dafa arrangé sax société yi parce que ñee dañ koo yoonaloon te organiser wuñ ko tënkuñu ko islam ñëw organiser ko tënk ko kon yaakaar naa ni jigéen yi nga xam ne ñoom dañuy joxañ baaraami tuuma islam di ko ànd ak ñeneen ña nga xamante ni ay noonu lañ ca biti ñooñu damay wax ni bu seeni gëstu xóotoon sax duñ waxee noonu waaye nag xam nga léeg-léeg li wolof yi naan mag mu jàkkaarloo ko jant jant fenkut tey moom wax dëgg yàlla neexut a mën dara wallahu alam ñaareelu tomb bi mooy naka la nuy barilee ay soxna ak ñaata moo dagan góor takk ko borom bi subhanahu wa taala yoonal la góor mu ëppal benn soxna waaye nag charte yii mooy daje góor doog a ëppal benn soxna taaddut mooy nit ki am benn dem ba mu yàgg mu bëgg a dolli beneen su fekkee charte yi daje na day góor mën naa ëppal benn soxna te lu am solo la xam naa ñi foog ne dañu ñëw pour waxal góor ñi jug leen dem takki ay soxna déedéet loolu moom taxumaa jug tey pour wax góor ñi jug leen dem bu ngeen ci ngeen takk ay soxna yu bari xam naa jigéen ñi loolu la ñuy foog loolu moom taxunoo jóg tey li ñu tax a jóg mooy njaxas mi am ñu leeralaat lay njàngalee islaam ña ca nekkoon xam ni nii la ñi ci duggawul xam ni nii la loolu mënu tax a jóg bi ci njëkk mooy nit ki na fexe ba mën a maandu ci diggante ay soxna maandu nag duma ci guddal ci bunt boobu ndax am na nuqta boo xam ne mi ngi ñëw te loolu ca lay wax buñ ca yeggee kon maandu gi dana leer nit ki fexe ba mën a maandu ci soxna yi mu yore ñaareel bi mooy al qudratu ala al infaq góor gi mu mën a fexe ba su yoree soxna yi na leen mën a dundal waxuñu waa joo xamante ni dafa nekk fii rek moom daanaka mënta yore sax kenn ah mu gis gaa yi dolli rek mooy damay dolli déedéet loolu moom charte bi mënoo koo matal na nga fexe ba soxna si li gën a gàtt jox ko mu lekk jox ko mu naan utal ko fu mu dëkk te di ko dundal charte boobu soo ko mënta matal kat na nga yëg ne yow takk beneen soxna moom waru la yow nga xam bu fekkoon ci benn lañ toll sax dañ naan takk benn waru la ndax ki mënut moom bu doon ci benn lañ toll danaa ko mënul waru la bu fekkee kii nekk ci benn dañuy wax waru la moom kii nekk ci ñaar taxut di wax ñaareel mooy allah yazid al jamu akthara an arbai an an la yazid al jamu an arbai niswatin xaraaj bu góor gi takk lu ëpp ñeenti soxna ndax kat loolu mooy njàngale islam yu wér beneen bi ci des mooy tamit bu nit ki boole ñaar ñu araama boole ñaar ñu bokk ndey ak baay déedéet xanaa mbete bu kenn ka faatoo mbaa nga fase ko nit ak bàjjanam déedéet kon yéen islam tere ku leen boole même boo mataloon yëpp te bii yegg si wut takk ay soxna du mën a bañ rek sunu borom day wax nag fankihu ma taaba lakum min annisaai masna wa thulaatha wa rubaa foofu nag da ngay dégg gars yi di ko firee firin bu leen neex ndax xam nga fii moom Sénégal moom dafa neex ndax mën a la liir rek te mën a làkk jumla ju wér fi'l ak faa'il ak maf'ul bi daal boo ko xasee mën a làkk rek moom mën ngaa commencé wax ñaag léegi yow su ko defee léegi da ngay dégg ku ni masna da ngay takk ñaar wa sulaasa nga dolli ci ñett muy juróom wa rubaa nga dolli ci ñeent muy juróom-ñeent bu ko defee mën ngaa takk juróom-ñeent sax am na ñu wax sax ñu gën a xaabaabal loolu faf waaye alxaafid ibnu kathir boo delloo ci tafsiram dafa tontu gaa yooyu alxaafid ibnu kathir mu ni takk lu ñeenti sox takk ñeenti soxna rek yam ca loolu la a'immatu ahli sunnati wal jamaa ñëpp dëppoo borom xam-xam yi seen la xam-xam yëpp dëppoo nañ ci lu dul ab kuréel ci chia ak ñiy dox ci seen yoon ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam bilaa xasri dañ ne moom takkal bu la neex rek maa taaba mooy lu la soob amul tënk lu la neex takkal am nañu ne waaw gi day boole mas naa ñaar wa nga dolli ci sulaasa ñett wa nga dolli ci rubaa ñeent ibni kathir mu ni lii nag wax dëgg yàlla ku koy wax lii mooy wan ne xamoo dara dara dara ci làkkum arab mu ne xamoo dara ci làkkum arab xamoo dara ci sunna xamoo dara ci alquran kon kafa allahu almuminina alqital kon yaakaar naa ni ñaay wax loola moom daanaka jërub sax ñuy dafa am wax yoo xam ne wax mbokk yi léeg-léeg wax dëgg yàlla dañoo am yeneen yu gën a yitte yu ñu war a leeral yoo xam toog ca di ca wax waxaat yu bari sax dañ jël suñu waxtu loola moom ñun ñëpp xam nañ ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek la yàlla may mu ëppal ñeenti soxna mas na maa dajeeg benn waay boo xam ni ci diiney chrétien la bokk ñu daje ci benn kër mbokk mu jigéen mu tuub li may wax yàgg na lool defe naa lee mu jege juróom-ñetti at boobu sax xanaa li may wax nii leeragul woon sax ci man mu ni bokk na ci li muy critiquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy dafa bari doon ay soxna bokk na ci li ma ko tontu woon mooy Souleymane moom ak yi ma jot a jàkkal bokk na ci li ma ko tontu woon mooy yow boo dëkkoon cib dëkk ñu ni la su xeex amee wala ku jëkkëram faatu bàyyi ko njaboot lu màggat màggat takkal nga jël di nga nangu mu ni tekk ma ne ko déet da nga may tontu mu ni ma déedéet lu tax doo ko nangu mu ni ma bëgguma ma ni ko ngay taamu di takk soxna est-ce que di nga préféré sooy baril ay soxna nga takk kenn rek waaye ñu cees ñëpp nekk ay màggat mu ni déedéet ma ne ko yonent bi de loolu dong la barile woon sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko yow lim nangu nangu ko ñaareel bi moom mooy yonent bi saa sallam bu fekkonte nii comme ni ko ñenn ñuy waxee parce que tamit léeg-léeg jërul mer wàcceel niveau bi nga toll rek ba wax ak nit ki fa mu toll jërul mer ndax kooku daa xamut ma ne ko yonent bi alayhi salatu wasalaam di wax dëgg yàlla bu nekkoon bànneexu ay soxna moo ko tax a jóg ragal naa meer yi ànd ak ay doom du leen takki moom te defe naa boo génnee Aïcha génne Zeynab bint Jahshin ci xaw koo dab dabaal ba Hafsa ci xaw koo dab dabaatal ay màgget ak i meer ak i boromi doom gis ngeen ba muy takk Umu Salama damaa fiir mu ni ko ma ñaanal la yàlla mu dañ màggat laa mu ni ko maa la mag damaa yore doom mu ni ko may seen baay kon yaakaar naa ni kooku moom am na lu ko taxoon a jóg lu dul li nit ñi foog ala kulli xaal ñeent fa la di ji góor war a yem kon nit ki su fekkee bëgg na bu amee benn mën naa dolli beneen bu fekkee matal na sart yooyu ma wax mooy na nga fexe ba bul boole ñu xaram ku leen boole ci doon genn keppaar na nga fexe ba bul ëppal ñeent fii nag am na ñoo xamante ni moom dañ leen di analee diine sax dañuy ëppal ñeent defe naa loolu mu xam nañ waaye gis nga sunu borom léeg-léeg daf nuy noppalee ay mbir ndax am na yoo xam ne bu dee génn balaa génn ci suñu làmmiñ suñu borom da koy jaarale ca làmmiñu kam war a jaar génn. am na kilifa gu mag ci ñoom goo xam ne su ma tuddoon turam ngeen ni hay benn waaye dana ko waaw yéen seen soxna yu bari yii ngeen di takk moom moom moom fu ngeen ko teg mu ne ko xanaa ci kii rek daal di bés bakkan bi ci bakkan bi rek xanaa kii rek topp seen bakkan rek te kilifa la goo xam su ma ñu leen doon jiwa ngeen ni hay saraxatan seen soxna yu bari yi fu ngeen ko teg mu ne xanaa topp kii rek kon kooku moom noppal na nu ñun kooku moom noppal nañu kon jëratul ñu yàgg foofu ndax comme ñoom ñoo mën a xam ni ci seen bakkan lan ko teg nag moom ku jël sa bakkan def ko imam boo sàggantul mu jiitale ci jàkk joo bëggul a julli comme ni ko wolof yi waxee kon ak nuqtatu saalisa ñetteelu tomb bi mooy naka la ñuy dëppalee nag aaya jii di wax ni góor ñi dañoo war a maandu ak aaya jii wax ni kenn mënta fexe ba maandu ñaari aaya yooyu benn bi sunu borom dani walan tastatiu an taadilu bayna annisaai walaw xarastum mënu leen a muusa ka mucca même bu ngeen ko bëggee ba fexe maandu ci seeni soxna mënu leen ko xam loolu daal yaa lan la jëfandikoo du ngeen ko man ba mukk jeneen aaya ji sunu borom li wa in xiftum allaa taadilu bu ngeen yaakaaree ne bu ngeen ëppalee ñaari soxna ñett du ngeen maandu fa waaxida kon yem leen ci benn yonent yàlla bi alayhi salatu salaam mu ni képp ku yàlla wërsëgal lu ëpp benn soxna mu jeng ci kenn ki gënale ko ca ka ca des bu yomal qiyaama bu dikkee dafay pant ak wetam sëgg rot bay waaja waata rot am na benn benn bi riwaay bu ni maa'il benn bi ni saaqit day jeng benn bi day rot nag faf ca suuf di diree ko ànd ak moom jëm haawiya loolu musiba ju rëy ngoog joo xam ni képp ku yore ay soxna wala nga namm koo yore war ngaa bàyyiwaat xel tëkku bu mag boobu nga xam ne nit ki bu yoree ay soxna te mënta maandu ci seen biir ndax kat wax dëgg yàlla bëgg a yore ay soxna warut a tax su fekkee yëg nga ni mënoo garanti maandu gi su boobaa war ngaa fexe ba yam ca benn ba kera nga koy mën xadis boobu imam ahmad mi ngi koy solo ci musnad te xadis la bu wér ak abu daawud ak tirmisi ñëpp génn nañ ko ala kulli xaal alxaafid ibnu kathir soo delloo ci tafsiram mu ni ولن تستطيعوا أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ابن كثير من تفسير آية داني سنو برام داني منو لنا فخي بماندو تي سخني تي مبولم أنا بيب يمل لين تي لب loo defal kii defal ko kee loo wax kii wax ko kee loo jox kii jox ko kee réyal kii réyal kee muñal kii sunu borom mu ni munu leen loolu nee na wa in xasala alqasamu assuuri laylatan wa layla fala budda min altafawuti fi almahabati walshahwati waljima même bu nekkente ni jéem ngaa maandu ay gi bu dee ñaari fan ñaari fan ku ne nga jox ko ñaari fanam bu dee benn fan benn fan ku ne nga xas ba ma tafaqu ci lañ dëppoo nee na su fekkee dépense it nga di ca jéem la nga ca man nee na faw rek am ëppalante gu am ndax mbirum mbëggeel nekkul ci sa xol te faw nga am koo gën a bëgg loolu mu mënta ñàkk léeg-léeg góor nag mën naa wax sama ñaari soxna yëpp ñoo bokk yem ci man d'accord ñoo yem ci yow waaye nag wax dëgg yàlla nag moom mënta ñàkk nga am koo gën a bëgg loolu mënta ñàkk loolu loolu mbirum xol la loolu mbirum xol la nit ki mën naa am ku mu gën a bëgg dañuy dañuy def léeg-léeg da ngay mit am maîtrise ba du feeñ léeg-léeg nga ñàkk maîtrise ba mu feeñ te it ñàkk maîtrise ba mu feeñ nag wóorut ndax su boobaa mën naa taal sa kër yow bul dégg nag yonent bi ak Aïcha rek la jigéen yonent bi jigu la ci bunt boobu de bàyyil xel loolu tamit nag kon te nee na loolu mooy waxu Abdullah ibn Abbas Ubaydat as-Salmani Mujahid Hasan al-Basri Dahak ibn Muzahim ak ñu bari ci aimatu salaf loolu mooy seen wax ibn Abi Hatim nee na aaya ji moom dafa wàcc sax ci Aïcha ndax moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ñeneen waaye nag teewul yonent bi daraan maandu nag ci yamale lañ war a yamale kenn ku ci nekk mu jox la la nga moom soo delluwaatee ci Cheikh Abdourahman ibn Nasir as-Saadi ci ba muy tafsir aaya ji dani sunu borom tey day xamle ni góor ñi mënuñoo maandu maandu gu mat sëkk ci seeni soxna ba yemale nañuy bëggee yemale nañuy àndeeg seeni soxna ndaxte kat la koy waral yow moomoo ko ba di ko man parce que mbirum xol la ndax mbirum bëgg kat mbirum xol la te xam nga nit moom bu rombal fii ñaari ganaar sax yu cofante léegi tey moom bu ko waa ko xolam dana am fu mu fu mu fu mu xaw a xool loolu loolu mbirum xol la nit ki mënu koo moom nee na su ko defee la koy waral kon moomoo ko moo tax sunu borom mu ni la nga xam mu ni fa dalika afa allahu amma la yustataau mu ni loolu tax yàlla maye la kenn mënut wa naha amma huwa mumkin mu tere li mën a nekk moo tax mu ni fala tamilu kullal mayil bul jeng jeng gu ëpp jeng gu ëpp mooy dem ba nit ki àq yi nga ko war a jox nga di ko ko xañ dem ba di feeñal sa sa sa sa sa gën a bëgg ba muy jur adaawa ci keneen ka dem ba di jox kii lu ëpp ci ay wala yu demee noonu ah loolu moom wax dëgg yàlla nag foofu moom dañ ko yeddee nit ki da ci am bàkkaar mu ni fan nafaqatu wal kiswatu wal qasmu dépense beeg koddaay geeg séddale ay geeg yooyu yëpp mu ni alaykum an taadilu baynahunna fiha da ngeen caa ware maandu bi xilaafi alxubbi wal wati wa naxwi dalik ànd ak sa soxna sëyeeg moom ak bëgg ko ak yu demee noonu kat nag mbir la yoo xamante ni ëppalante mën na caa am te su boobaa dee su ko bindal nit ki bàkkaar ndax mbirum xol la mbirum bëgg la ibnu qudama borom téere bu màgg boobu almughni boo ca delloo mu ni laa naalamu xilaafan bayna ahli alilmi fi annahu laa yajibu taswiya bayna annisaai fi ljimaa ibnu qudama mu ni xawma ak wuute ci borom xam-xam yi ci ni warul góor muy naan day maandu ci ay soxnaam ci ànd ak ñoom ci wàllu sëy comme bu ma ayee ci ki ma ànd ak moom sëy boo ayee ka ca des faw rek force di nga ànd ak moom sëy mbaa nga am bàkkaar déedéet mu ni te déglul wax jëm ci teg li mu amee solo mu ni wa dalika tariqatu shahwa aw tariqatun shahwaniya ndax kat loolu mbiram bànneex la ak jeng te nit ki kat loolu moomu ko te du chaque jour tamit mu am cawarte du chaque jour mu man ila axiri ndax xol bi kat léeg-léeg wax dëgg yàlla dina am foo xam ne dana fa gën a jeng waaye loo man ci nëbb ko denc ko ba kenn du ko xam loola li gën a baax mu ni lii nag mooy waxu borom xam-xami salaf yi kon ci loolu mbokk yaakaar naa ni bu ma defaatoon benn synthèse bu gàtt mën a tënk kon ma huwa al adlul matlub lan mooy maandu gi ñu sàkk wa huwa taswiya bayna alzawjat fi al umuri al maddiyat ka altaami walsharabi walkiswati maskani walmabit min gayri tafriqatin bayna zawjatin ganiya wa faqira fexe ba daal dépense bi dëkkuwaay bi lekk gi naan gi ak ay gi nga fexe ba yooyu benn bu ci nekk moom na nga matale ku nekk nga jox ko lam yeyoo jël kii luyel ko fii ci Pikine ci néeg bu baax jël ko ca des yóbbu ko ca fa ndox ma nekk luyel ko fa ci néeg bu demewut noona ah déedéet déedéet boo ayee fii da nga joxe dépense bu mat sëkk boo ayee fële jox ko tuut ni ko débrouiller comme ni ko gars yi defee nga xam ne dañ ciy bëgg lu yomb lool déedéet waaye nag bul fàtte ne dépense yi duñ tolloo ndax ki nga takk am ak moom ay at am ak moom ñetti doom boo nee bu ma xëyee dama ko fi bàyyil deux mille kële amagul doom nga ni deux mille laa koy joxit yaa ngi bëgg a tooñ nag yaa ngi bëgg a tooñ su boobaa kon loolu tax ma ne la tollale mën tollale mënta am ndax li tax mënta am mooy nit ñi dañoo tollawul dañ leen di tollale moo tax sunu benn sëriñ doon nañ ci daq nit la xissa bu mel noonu mu ne waa dafa soxna si dañu ko faw rek da ngay yemale kenn ki dafa gàtt kenn ki njool mu daal di dem jënd tisi ñawlu ko daal di ki njool moom jëf ya jot na ko ki njool moom ñu yebal ko lu ñu sa mbëx mu toll ni moom muy kaas ñu ne ko déedéet yaa ne woon yemale nan la yemale ah kada loolu la rek wa illaa daal di diima yi nga xamante ni kii numéro 10 lay sol kii di sol 9 kii sol dix mu ni onze baax na ci man nga dem jënd ñaari onze kii sol numéro neuf da nga ko tooñ moom kon xel sax mënut a nangu loolu mënuñoo tollale yàlla sax subhanahu wa taala tollale wut wax dëgg yàlla te fii ci àddina sax tollale wut te wala axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila kon tollale googu moom njuumte bu nit ñi wax la rek waaye teguwut ci dara kon ci loolu ci la ñuy xamee ni yonente bi alayhi salatu wasalaam de wax dëgg yàlla bëggoon na Aïcha lool bëgg goo xam ne saraxatan nee nañ ko kan nga gën a bëgg ci kaw suuf Amr ibn As moo ko laaj mu ne ko Aïcha mu ne ko waxuma la jigéen ñi góor ñi laa laaj mu ne ko bàyyam kon loolu moom leer na làqu ci dara waaye Aïcha ci boppam moom mi ñu wax loolu mooy seede mu ni ci xadis boo xam ne mi ngi ci Buxaari mi ngi ci Muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daawul gënale mukk ci ay séddale kenn ku ca nekk la nga yeyoo rek la lay jox amul kenn ku doon ëppale morom ma te moo ne yonent bi sax sama xam ne ca Aïcha la gënoon a bëgg loolu mbirum xol na rek moo tax soo dalee ci Buxaari ak Muslim Xafsa daa Omar daa ñëw ci Xafsa mu ne ko yow sama doom wax gii gaa yi wax naan yonent bi Aïcha la gën a bëgg ak yooyu bu yeboo nga yëg ni bu mu la métti ndax loolu def dafab yàlla ah kon nag bu yeboo nga jàpp ci yàlla te xam ne loolu def defu yàlla te nga góorgóorlu sëy sëb sëy Xafsa nee na bi yonent bi yegg see ma nettali ko ko dafa reetaan daal di muuñ rek noppi waxut dara kon ndénkaani yii mi ngi jëm si ku góor ki nga xamante ni moom moo bëgg a baril ay soxna ginnaaw buñ ko waxee ni ko ñeent nga mën a jël ci ay soxna waaye da ngaa war a maandu ci seeni diggante bañ a jël àqu kenn ndax boo ko defut ëllëg àllaaxira kat jéngaay ba mën na laa tàbbal haawiya bi ci njëkk mooy da ngaa war di séddaleeg ay même boo feebaree. même boo feebaree da ngaa war a joxe ay gi parce que ay gi nekkut ngir ànd ak moom sëy waaye ay gi lil uns pour wéttali ko la bokk na ca bokk ca la bokk kon wéttal googu ak xam la bul ko ko xañ même boo feebaree jox ko ay noo koy joxe ay nag ko sa problème la yow ñaareel bi mooy bu fekkente ni da ngaa yaakaar ni dafa jafe ci yow ngay feebar di wër di joxe ay sàkkul la yonent bi sàkku woon mooy ñu may la nga nekk ci kër néeg kenn féete ci kenn ñun nag dafa am nu koy defee da ngay jékki-jékki gars yi ñu ni kon dem na kër soxnaam su ndaw loolu tooñ la wala mu nga ci kër soxna su magam ndax njaboot ya fa lañ nekk loolu tooñ la ñaar yépp bu ci nekk tooñ la li dul tooñ mooy da nga yore ay soxna waxtaan leen ba ngeen déggoo pour nga am fenn foo féete ba nga faj ba wér nanguwuñ loola defal li ñu tuddee xuraa mooy bantale ñoom ñeent nañ andi ku nekk bantam suñu bantalee bant ba génn kooka moom amatul tàggu kenn ku mu neex ak ku mu naqari islam may na la nga dem féete ca kooka wa kadalika booy tukki tamit nag noonu ngay def moo tax ibni qudaama ci al mughni mu ni bu fekkee da ngaa koo sàkku ci ñoom ñu bañ bu la neexee am nga ñaari possibilité bàyyi leen ñoom ñépp nga bañ a jox kenn ay wala nga bantale leen jël ka bant ba dal ca kawam nga jox ko ay mu jeex ñetteel bi mooy bokk na ci ndénkaan yi comme ni ko nit ñi foogee li ñu tuddee yamale na nga yamale déedéet loolu du wax du wax bu fekkente ni da ngaa aye fii bu li nga def rek même li nga def fii boo demee lan togg fii bu fekkee fii lii lan togg boo demee fële faa force rek lo déedéet du noonu loo jox kii rek faaw nga jox ko këri déedéet tey boo yoroon ab doomu orange faaw nga xar ko ci dig déedéet tey boo yoroon doomu orange kii ñaan la ko mën nga ko ko may ko kenn terewul la ko moo la ko jëkke ñaar te moo fi nekk benn lef bu doon ñaar ma séddale ko comme nit ñi ni ñu foogee faw rek bu dee doomu orange faw nga xar ko ci digg bi jox kii lii jox déedéet yooyu dafa am yoo xam doxalin yoo xam boo ko xoolee na mu diisee islam du diggalee noonu beneen bi ci des mooy fexe nag kenn ku ci nekk lam yayoo ñu jox ko ko ndax xam ngeen soxla it du ñu tolloo lekk-lekk comme ni ma ko waxee sànq am na ca koo xam wax dëgg yàlla la koy doy du bokk ak ca des la koy doy beneen bi ci des it ñi foog ni maanaam ànd ak soxna ci kawlal muy sëy ak moom faw rek boo ayee fii sëy ak kee faw rek nga ayee kee déedéet gis nga waxu Ibn Kathir ji sànq te loolu mooy wax ay imat sal dama tudd kooku rek ngir gàttal waaye tegtal yu bari yoo xam ne borom xam-xam yi dañ koy wax ci kàggu yi sunan yeeg siyar yi da nga cay fekk lu mel noonu di wane ne maanaam nekkut dëgg la nag nit ki war naa fegal soxnaam ba du aaja wa bànneex bu di ko ko xañ su fekkee nag bi charte mu man mu man su fekkee mënut mënut ndax nit ki du caagane bis bu nekk mu man du caagane bis bu nekk mu sawar du caagane bis bu nekk mu bëgg a ànd ak soxnaam it kadalika beneen bi ci des mooy soo takkoon ku dul jullit ca ñale lislaam may nga takk ko ba mu sëy si bu sëy see yëgal ni mbirum ay moo kii jullit bi ñoo ci bokk yam amul kii du jullit kon sañ naa koo jox benn fan kii ma jox ko ñaari fan déedéet ñoom ñaar ñëpp ku nekk ñaar ñaar la yam seet bañ a séddale gi daal fi muy amee mooy jaam bu dee jaam la daal moom wax dëgg yàlla mën nga kaa bañ a toll léegi li ngay jox gor gi loolu moom mën naa nekk waaye bu dul loolu moom mënta nekk kon tomb yooyu bu nekkee leer na ñu xam ni kon nit ñi ni ñuy déggee maanute mooy yemale déedéet maanute mooy i'taa'u kulli di xaqin xaqa fexe kenn ku nekk àq bi mu am nga jox ko ay gi nag nit ñi ay ayloo benn fan benn fan ñaari fan ñaari fan ñetti fan ñetti fan ñeenti fan xas ba ma tafaqu ci lañ dëppoo rek ci lañ dëppoo am benn soxna fii am soxna dëkk ba waxtaan ba dëppoo it rek ah kii sëy si kii sëy si wut fi ngay liggéeyee moo gën a jege kee waxtaan ba dëppoo rek lu nekk waxtaan lay doon wat gaal ak yéegoo kon da ngeen koy waxtaanee ba déggoo ko léeg-léeg am na ci mbir yoo xam dañ la koy bàyyee yaag say waakal bu ngeen ko waxtaanee ba déggoo ko ci rek lépp loo xam ne fuqul islam wala jëlul àq jaamu rek islam fekk si leen ci wallahu alam tomb bi ci topp muy an nuqtatu rabia mooy kayfa nadaba al islamu al xayata al zawji al mushtaraka yaani at taaddud naka la islam organisé nag dund gun bokk muy ay soxna buñ baree ci kër tomb bi tomb bu am solo ndax xam ngeen léeg-léeg bari waa ñuy yor soxna ci seen kër yëngu du am waaye nit ki takk beneen soxna rek yëngu am defe naa loolu moom gaa yi xam nañ ko loolu tax góor ñi ragal góor ñi la tax ñu ragal ay baril ay soxna lii bokk na ci beneen waa ji nekk ci jàmmam i xanaa gisoo diw moom dafa takk rek këram yëngu ah waaw yow lu sa yoon ci diw kooku moom diw la ay ibaaratam ci ba muy jaar dem ca yàlla sax yow moom sa ibaaraat ci ba ñuy jaar dañoo bokk yow kay bu fekkee yàlla moo tax ngay def kay xam nga yooyu nit ñi dañ ko war di bàyyi xel nit ñi buñ tax ngay def tax saa bu taxee nga def rek da ngay daal di jiw góor day dafa war a xam ni baril ay soxna ci yombal yi ko suñu borom defal la bokk borom bi mooy yoonal góor baril ay soxna ah te loolu ci xéewal yi la bokk kon dafa jaadu bu ko yàlla dénkee ay soxna mu rafetal jëme ci ñoom maandu ci seen diggante kenn ku ca nekk na ko jox àqam ba mu yëg ni kii jël na ko àqam te yëg ni yont yàlla bi na xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te man maa gën ci sama waa kër te ku ne xam na ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku aye mu jox la sa ay oyof lool toog ci digg ëtt bi dabb daaxe ay daal la di daax ay daal la ah di di taf tafaka teppi ay yére yu yàqu ah di jàmmanteeg soxnaam yi di kafanteeg ñoom di reenteeg ñoom wékkul kenn ñu wékk tege fële déedéet waaye ku nekk rek daf koy jox àq ba mu am ci moom góor gi nga xamante ni moom la yàlla teg ca kaw muy joxe dépense benn bis bu mu xëy yàq ay tiyaabaam di wane ne njoxem dépense bi daa métti ndax su boobaa kat yaa ngay màbb say tiyaaba ndax li ngay joxe lépp aw yiw lay doon ci yow na nga yëg ne lii ay jibaal ay montagne xasanaat lay doon ñeel la àllaaxira parce que ki yàlla jaarale ak lekkam ak naanam ci sa loxo ba pare di la ca fayaat tiyaaba comme ni ko sunna waxee xataa ànd ak sa soxna sax sa yeeg moom ñu bind la ci tiyaaba su fekkee sellal nga sa yéene nag ba nga ciy dugg jaadu na nga maandu ci seen diggante xasba mattafaqu alayhi ca la ngeen dëppoo nga fexe ba nga na nga ko matal bul ko teppi te loolu nag góor ñi koy teppi dañoo bari lool léeg-léeg nga dégg ay këyiti kalaame yu bari di jóge ci jigéen ñi di jëm ci borom xam-xam yi ak ndongoy xam-xam yi te yan lay wax léeg-léeg nga gëstu ko ba wér mu xam ni dëgg la day wan ni kat góor ña jeng nañ ca yoonu ndax am na def-def yoo xamante ni bu tegee ci ñàkk xam ëpp na ndax da ngaa war a xam doog a dugg bu tegee ci xamu tayeef ëpp na wa ahlaahuma mur ñaareel bi bu bëggee tukki bu tànnee kii boo liggéey mu tànn ka ca des bu fekkee dëppoo nañ ci la way laa mu bantali leen ku bant ba dal ci kaw mu ànd ak moom noonu la yëpp doon sa alayhi salatu wasalaam te it booy jëflanteeg ñoom na nga fexe ba am maîtrise ci seen diggante nga nekk ko xereñ lool bariwaan a góor yu seen kër di tas te fekk ñoom ñoo tas seen kër boobu kenn tasu soxna su njëkk si tasu ko soxna su ñaareel bi tasu ko waaye yow ci sa jëmmi boobu yaa tas sa kër parce que da ngaa muusul gis nga góor gu la gën a yeewu moo la gën a mën a yore ay soxna loolu nag moom góor ñi dañ ciy ëppalante gis nga jigéen ñi ñu ñu ñu ñor la léeg-léeg danañ la defal ay test yu yu garaaw yoo xam ni jubluwaay bi mooy dañuy natt ba xam fu sa xol toll moo tax gis nga loo gën a mën a def ci lu ñu tuddee taxaaful gën a rëcc taxaaful xaw ma daf daf laa ko mën a tuddee xaw ma sànni mu jàll ah finiti finiti waaw finiti nisf xaw ma usru mi'sar al-aqli fiha huna mooy at-taghaful mooy finiti léeg-léeg am na yoo xamante ni da ngay mel ni dof parce que test la yu ñu lay defal gis nga léeg-léeg mën nañuy mayante ay ay dëgg la lu baax la lu lu am solo lu ñuy encourager soxna yi la waaye am na ñu koy def fekk phase test la ñuy yabal pour xam ba xam yow kan nga gën a sawar kan nga gën a sawar a joxuk ay yarhamukallah léeg-léeg dinañ lay xool ba di lay xool booy dugg ci biir néeg néeg diw ndax da ngay duggaale ak say dàllam déet ak néeg diw booy dugg ndax da ngay summi sa dàll ci bunt bi jigéen ñi technique yu fort la ñu yore léeg-léeg dinañ lay bàyyi xel bu baax ñi ngay waxeeg diw xataa am na ci ñuy yegg bay xool diw boo ayeeg moom ban heure ngay tëdd te loolu xam nga sax li may wax nii baaxut waaye li ñuy def laay wax loolu nag xam nga ban bis gi koy xam bisab xuloo waaw seetlu naa ni soo ayee ci diw da ngay waxtaan ba heure nangam nangam fii boo ayee rek nga ni gufuñ tëdd da ngaa defee ne man damaa def yëg naa ko yooyu góor lu mu ci mën di bàyyi xel moo gën gis nga léeg-léeg ñoom danañ lay nattu di xool ba xam kan nga gën a bëgg waaye ki la gën a ñor rek mooy mucc ci bunt bi bu ko defee léeg-léeg góor gi mën naa bàyyi xel ci bunt boobu bàyyi xel gi mën na ko caa dimbali kan nga gën a bëgg ci say soxnaak koo gën a yu kenn xamut ak góor gi daa tëdd ba guddi waxtaan ak aaw bi may ko xaalis ci ëllëg sa mu ayee ci ñaareel ba may ko xaalis ci ëllëg sa muy ayee ci ñetteel ba may ko xaalis biñ ko laajee kan nga gën a bëgg sa soxna yi mu ne kama mayoon xaalis kama mayoon xaalis mu jeex bu ko defee kii de yaakaar ni mooma kee tamit yaakaar ni mooma kee tamit yaakaar ni mooma ku ne may na la xaalis di moo tax ñor gi bu ci ànd léeg-léeg góor mën naa tas këram kon laa budda an yakuna xaliman fi alaqatihi maa zawjati léeg-léeg yiy xew ci mbirum fiiraa ji gis nga léeg-léeg am na yoo xamante ni man li ma ci xam man de loolu xawma ci dara bul nangoo xam am na yoo xam bu ñu fa tolloo bul nangoo sax a xam aman lu man loolu day man de yëguma ci dara loolu day moom nangam nangam ay géegi nga ne nu ngeen ko defee baax na man ne nu ngeen ko defee rek ma fekk si leen ci que léeg-léeg am na ñu koy def ngir yàlla kese am na ñu koy def fekk dañ lay test su ko defee yooyu kon faw góor gi di ci bàyyi xel góor gi it mu fexe ba kenn ku ci nekk ci ay soxnaam bu mu ko gënale teg ko ca kaw ka ca des bokk ci tas kër loolu te góor ñi di ko def ndax da ngay gis ah takk benn soxna rek takkaat beneen commencé sikkal ku njëkk ka góor ñi moom bari nañu gaaw ci ñoom loolu loolu du gore gore fekkewut loolu ku njëkk ki moo tax it jigéen ñi xam nga yi ñuy kebatu di wax rek maa fi nekkoon ba dara dul dara ba naaj wi tàng maa fi nekkoon ba nga amagul dara maa doon muñal waaw tey bi nga amee sañ nga waaw bàyyi ko mu jàppatu rek bàyyi ko mu wax te it bokk na ci yi gën a kéemaane yoo xam ne góor ñi dañ koy def te ñàkk a yeewoo koy waral gis nga jigéen bàyyi ko mu wax li mu bëgg a wax bokk na ci liy gën a yàq ci xolam mooy da nga koo mayit mu wax li mu bëgg a wax gis nga mu bëgg a wax bàyyi ko mu wax Aïcha yonent bi da koy bàyyi mu wax li mu bëgg a wax lépp am na yoo xamante ni tey kooku sa soxna wax nga tukkal àddina bi Abubakar ñëw di àtte Aïcha Aïcha waxal Aïcha mu ne waxal yonent bi na wax yonent bi commencé expliquer mu ne ko na nga na nga fex ba na nga wax dëgg yonent bi waxul dëgg kan mooy wax dëgg léegi ci kaw suuf yooyu waxi ku mer la rek duñ duñ koy jàppee mooy wax nga naan yonent yàlla nga yow xam nga loolu bu fekkoon te lu mu fas la axiratan kufru la waaye parce que de looy waxi xam nga rek waxi ko mer rek yontu sax xam na ni kii fasul li muy wax gis nga kon faaw nga may ko léeg-léeg mu wax li mu bëgg a wax gis nga léeg-léeg nga may ko tamit nag yi bëgg a def yeeg am na ci yoo xamante ni faaw nga bàyyi ko nag parce que tamit nit nite moo yegg foofu bu naree ëppal nag nga doog koy ngalaat góor jigéen ñi it nag ñu sant yàlla ci xereñ gu rëy gii nga xam ni dafa fexe ba moom sunu borom mu def ci ay def-defam. ay jigéen daje ci ron keppaaru génn góor muy sonn ngir ñoom di leen boole yi dundal kii xamante wu leen woon sunu borom boole leen loolu li xikmatin baaliga sunu borom lu mu def rek am na lu ko waral jigéen ji mu yëg ni néew na ci dund salaf su fekkee ñun askano gi ñuy askanoo ci salaf wér na néew na këru koy dugg ca ñoom lu dul da nga fay fekk lépp benn soxna dugg ci kër di fa fekk benn soxna loolu mi ngi commencé am ñun bi ñu ñëwee loolu tamit ngeen bàyyiwaale ko xel gëstukat yi bu ngeen jógee na ngeen dellu ci séer yi dellu leen ci siiratu saxaaba ak taabi'un yi néew na kër gooy dugg fekk fa benn benn góoru benn jabar ñoom dafa mel ni góor takk benn jabar dafa xewut woon dafa xewut woon maanaam loolu dafa mel ni léegi la doog a commencé xew lii nag ginnaaw bu ma defee ak gëstoog seetlu gis ni néew na koy gis ñun la kii ci benn soxna la la yama ñun ñi ñuy jàpp ni sax ñoom mënuñoo takk ñaar sax am na ci ñoo xam ñu nga yoroon ñett faf loolu nag bu mu tax nga jóg rek nga ni da ngay wuti nag parce que condition yee nit ki dund waa bëj gànnaar rek waa bëj saalum tamit duñ bokk de nit ki na xool li muy def bu baax kon salafu saalix day damay wax ni laa takaadu tadxulu bayta ahadin minkum illa wa fiha ala alaqali imraatani fi ishatin raadiya fi jannati dunyan aaliya qutuufu almahabati waltaawuni daaniya kër gu neex kër goo xam ni ay soxnaa nga fa ña nga ca ajjanay addina dund gu dal ajjanay addina ju kawete neex meññantam mbëggeel ak dimbalante ma ngay rot ca seen biiri kër jàmm ni ñooy te kenn déggu leen kenn du leen dégg fii laa ngee fi woon bañ wujj mi ngi fi comme ni ñu koy faral di waxee waaye nag góor ña dañoo maandu woon te ku nekk ñu lay jox àq ya nga am ba pare am fulla jigéen ña ragaloon yàlla te it yëgoon sentiment yi xajal sama mbokkam jullit mu ñëw bokk ak man kon loolu ci gàttal noonu la ñuy tënkee tomb boobu nga xam ne góor gi war naa fexe ba saa bu yoree ay soxna mu nekk koo xam ne xaliim aaqil ku ñor te it am na yoo xam ne nag ëpp na di faral di wax léeg-léeg mbaax mbaax yi sa soxna sii boo ko mënta ñàkk a wax bul koy wax keneen di ko dégg beneen soxna bi di ko dégg loolu dafa bokk ci liy togg xol di ko ñoral su mënta ñàkk ba mënta ñàkk arab yi sax dañ doon faral di bañ loolu am na benn téere bu ndaw benn borom xam-xam moo ko téere bu am solo la ci wàllu xiira lay wax ci fiir nee na arab yi dañoo xam dañoo fiiral ba bu ñuy wax seen soxna duñ nangoo tudd tur wa ndax nee tur wi sax bëgguñ góor ñi dégg ko sama soxna nu mu tudd nu tur wi sax bëgguma góor ñi dégg ko xam ngeen kooku fiir na lool Saal bi wax xaas noonu la meloon saad wala xama xama kañ saxaaba yi koo xam ne moom nee na moom du fase moom du ma takk di fase ñu ne tax mu ne daa fiir ma du fase kenn moom ku mu takk rek noonu la lay daal di téye moo tax ku ñu daan joxe misaal dañuy joxe misaal ci moom fiir ba doo fase beneen bi ci des tomb bi ci topp ak nuqtatul xaamisa ci tënk ndax waxtu mooy nubdatun min adraari taaddud léegi nag baril ay soxna kat am nay njariñ waaye nag ay lor am na ca lor yi tekkiwut ni sharia mi yoonal moo yoonal lu ànd ak ay lor déedéet li muy tekki mooy ni islam bëggee ñu tëree ko noonu néew nañu cay jaar moo tax ay lor di am loolu laa jub ci lor yi waaye nanu yëg ni kat sunu borom wax ne man yataadda xududullah faqad zalama nafsa bokk na ci lor yi lay tàkk ci biir kër yi ci xeeti fitna te ñàkk maandu moo koy waral ba loolu mën a wàll seen ci ay doom ba ñii ŋàññi lislaam point bi dañ ciy sukkandiku ñoom doom yi duñ déggoo ndax lan ndax jafe-jafe yi nga xam ne nit ki am na ko ci wàllu ñàkk maandoog ñàkk jox kenn ku nekk àq ba mu ameel xam nga loolu day jur ay bañante ba jur bañante googu ci ay doomi baay parce que léeg-léeg da nga gis koo xamante ni day bañ doomu baayam te fekk boo ko toppoon jàngat ko ba ca biir baayam a ko waral ndax baayam moo jël yaayu kii teg ko ci kaw kii di ko xorñoñal ñuy gis ñoom gone yi loola dem ba def ñëpp ci sa xol nga bañ sa baay bañaale kooka bañaale gone yi lii moo ëpp ci liy waral di gis sociétés yi doomu baay yi duñ faral di déggoo léeg-léeg sax mu yegg ci góor gi def lu ëpp yéen yéen du ngeen tekki ndax seen yaay sëyalu ma loolu kenn du ko wax loolu fas ko ci sa xol nga jéem koo lijjanti loolu yoonu xale bi néew ci moom yéen du ngeen tekki di ngeen liggéey ba dee du ngeen tekki seen yàq loolu kenn du ko wax musiba la day yàq yaay ji tamit yi nga xamante ni mooy faiblesse su bàyyi waru koy wax ci kanamu gone moo tax gis nga régler masala yi say lu jafe la gis nga du bunt bi kese waaye bunt boo dem rek am na ci ay masaakil yoo xam ne moom la ñuy faral di dund beneen bi ci des mooy adamul istitaa bi takaalifi zawjaat maddiyan wa maanawiyan wa maanawiyan góor gi jël ay soxna te fekk waragul a jël war a jël dafa am mën a jël am li war a nekk am li mën a nekk am li war a nekk ak li mën a nekk nag saa bu ñu leen jaxasee xay am góor gi nga xamante ni moom yàlla da ko wërsëgal benn soxna moom daanaka bala muy lijjanti can sax xaw na ca sonn lool moom loxoom jot gannaawam comme ni ko jigéen ñi faral di wax ndax ñooy faral di wax baat yooyu mënoo wax dëgg yàlla bul bul bul bul lor sa bopp di lor ki nga nekkal di lor ko ngay indi yow bu soxla si feebaree pour nga faj ko problème la léeg-léeg pour mu ndékki li sax mën a mat problème la loolu damaa jàpp ni góor yablu sa bopp yablu sa bopp mooy nga jóg ngay da ngay wutaat parce que wax dëgg yàlla am na loo xamante ni xaawi si suñuy bopp la man gi nag tekkiwul nag comme ni ko jigéen ñi waxee waaw il faut nga xaar ba am kër mbaa nga am oto baa déedéet yooyu wax dëgg yàlla mu bokk ci nag moom am kër ak am oto yooyu moom nit mën naa dund ba faatu doo am oto mën nga dund faatu doo am kër donte nag jigéen ñi moom li wala fi wax kuy waaja daanu caru garab boo seen jafandu ca jigéen ñoom bu gisee loo xam bu ci jafandu dana tax nga gën a yéex a am moom danañ ko wax waaye nag loolu du sart nag wax dëgg yàlla l'essentiel daal góor gi lam man ci bu ku feebar mu faj loolu la tekkiwul mooy ku feebar fas dañ ko faj ndax yow mii sa yore sa ket yow sa bopp sax da ngay feebar doo mën a faju faf kon nattukaay bi ko nit ñi nag faw nga am nangam wala faw déedéet mi ngi aju ci situation nit ki ak lam yëg ni man na ko te it foofu nag mag du ndax boppam ndax bu fekkente ni yow daanaka fi ngay luyee mënoo koo fay wala sa kër baay nga nekk ak say doomu baay indi nga fi benn ñu jox lépp néeg te say doom bay aajawoo takk soxna nga bëgg indi keneen pour mu dugg ci biir kër gi xuusee ngi bëgg ñëw su fekkee da nga koy luyeel nga man ko alhamdulilah loolu moom mi ngi ajit xasbal istitaa na nga ko man rek su fekkee da nga koy bàyyi kër yaayam it kadalika loolu moom sa biiri bopp ala kulli xaal man gi daal na am gis nga li wala loolu moom la moo tax nga dégg jigéen ñi wax naan maanaam yaa ngi boot jotle woo ngay jéem a rogganti man la jigéen moom baat yu moom kalimaat yu yu xarib la ñuy faral di génn léeg-léeg waaye nag léeg-léeg mu nekk dëgg nag bu ñu def lu ñu génn rek ñu ne fii la tax léeg la ñu wax dëgg nag te it léeg-léeg jigéen ji it nag wax dëgg yàlla góor gi du du du sart mu tàgg ko doog a takk soxna waaye nag yëgal ko lu rafet la waxtaan ak moom daa fiir seral alquran loolu loolu aayut man de xam naa ci samay gëstu xamaguma baatu takk dënn fu mu jóge waaye bu fekkonte ni moom gisuñ ci lenn xam naa borom xam-xam yaa ngi buñ bare buñ ci gisul lenn lu aay bu la ko laajee jox ko ko jox ko ko ah dënnam daal ci kay ndax dañ ko wutal benn ci kay takkal ko ko rek bala muy am jafe-jafe jarul coow jarul coow de wax dëgg yàlla jarul coow de bu dee lislaam kii ko bañu ko jox ko léeg-léeg nag jafe-jafe yu rëy rëy rëy am te fekk bunt bi moo koy waral da gis ku du ma fi fekk ak waaw da nga maa war ak da nga yooyu yëpp ay mbir la yoo xam jigéen ñi nañ ci ragal yàlla te xam ne yooyu moom du ay wax ñaareel moom mooy ziwaaju thaniyatin bi gayri niyatin saalihatin kat taqlidi aw gayri dalik takk beneen soxna te fekk tegoo ko ci yéene bu sell ndax da ngay toppandoo wala da ngay faj mer toppandoo mooy comme ni ko gars yi defee waaye sama yow takk goo ñaareel ba léegi yow yéex nga de mbokk yi loolu doxoy nu salafu saalix la ñoom daawuñ laajante mbokk takk goo ñaareel ba léegi déedéet loolu moom wax dëgg yàlla moom bokkul ci ñu war di daje di ko laajante moom gis nga wala nga dégg beneen mu ni yow sa waay yow sa taaw mi ngi bëgg a tolloog yow di takk goo beneen soxna ay après loolu jotewut ak diine ji dara di sa taaw mën naa tolloog yow te fekk doo am sax beneen gis nga yooyu nag léegi day dugal ci nit ki sentiment su ko defee di wax na ma ko daaw di wax na ko daaw jéeg di waxaat ma ko bu ko defee affaire yi mën na laaj ñëpp loo nga jóg gis nga boo jógee doo am dimbalam yàlla ñaareel bi moom mooy faj mer te ñaar yi moo waral ñun ñuy takk ay soxna moo tax ñuy am jafe-jafe gis koo xamante nii gars yi li ñuy wax bokk na ci li ko influence bu tax mu tax dëgg la bu ci bokkee waaye sa yéene baax na moom baax na waaye bu mu ko doon moom waaye faj mer da ngay nekk kenn amoo la nga bëgg nga bëgg ka fajee mer faj mer gi mooy takk keneen léegi nag faj mer gi soo ko defee benn yéene bu baaxut la dalay échec loo ñaareel moom mooy ki nga mujjee jël faaw mu xam parce que jigéen ñi dañoo ñor te bu ko xësee xam rek sa kër tas na ndax bu ko xamee faw mu wan ko moroom faj mer saa boo ko takkee soxna sa borom sa soxna yëg ni kat yow mii kat faj mer la léegi ki ñuy fajee mer mi dalay faj la mer mi te moom yoonam néew ci su ko defee coow juddu benn waaye dafa takk ñaari soxna nekk ak aawam lu yàgg ab diir mu takk ñaareel amaana looloo tax mu takk faf ñaareel bi yëg ko bi ko ñaareel bi yëgee xam ngeen nu mu def dafa yónni mbindaanam wax ko ay bayit ni ko boo demee ba ca buntu kër diw nga tari ko fa ne ko wa ma tastawi rijlaani rijlun saxiixatun wa uxra ramat biha zamaanu fa sullati ñaari tànk mënuñoo yem ndax benn bi moom ar bii sa ko dal ba muy waaj a dagg te benn baa ngi ni cocc subhanallah loolu mooy la mooy maag yow mënuñoo yem yow yàgg nga sa waa ji màgget nga fi ne da ngaa arbis man maa bees loolu la ko bëgg a wax rek wa ma tastawi rijlaani rijlun saxiixatun wa uxra rama biha zamanu fa sullati mbindaan mi ñëw ba ci buntu nekk aawa bi suba teel tari loolu moom dañ ko digal rek mu tari wa ma tastawi rijlaani rijlun saxiixatun wa uxra rama biha zamanu fa sullati ndaw see moom it yónni mbindaanam ni ko kaay demal ma fële bu demee lu muy wax mu ne ko naqil fuaadaka xaytu chita min alhawa fa ma alxubu illa lilxabibi alawali kam manzilin fi lard yalafuhu lfata wa xaniinuhu abadan li awali manzili mu ne gis nga toxalal sa xol bi fu la neex naawal topp avion yi foo jëm baax na waaye na nga xam ni fa ma alxubu bëgg moom bañ koy wax illa lilxabibi alawali soppe bu njëkk a tax ñuy wax ndax moom nga àndaloon ba dara dul dara mu ni ko kam manzilin fi l ard yalafuhu lfata bari waa na nit fu mu déplacé wu dem fa dem ba miin fa bañ naan foofaa ko gënal waaye xel mi yépp mi ngi nu muy def ba dellu si fa mu njëkkoon a nekk loolu la olof yi naan picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf da ka bëgg a wax ni même waa ji bu ñëwee foofu it onk yi muy onk foofu xamal ni mooy damaa bëgg a dellu si waat sama aawa ba waxaninuhu abadan onk yi muy onk su onkee foofu rek xamal ni mooy daa bëgg a ñibbisiwaat sama kër gis nga yii day jur fitna bu ko defee léeg-léeg nga gis yu gën a garaaw yooyu c'est parce que léeg gis ay fitna juddu ci ba ñuy waxante ay baat yoo xamante ni baat yu yu yu tegginu wut dara la léeg-léeg sax mu dal ñuy dund diine rek loolu musiba la kon góor gi war naa fexe ba moytandiku yooyu nga xamante ni mooy ay lor na fexe ba buy takk na ko man ñaareel moom mooy na fexe ba fitna ji judd lu man ci yeeg ci fay ko na ko def ñetteel bi mooy na fexe ba faj mer bu mu ko tax a jóg waaye na am gorek bañ a sikkal te it nit ñi li ñuy foog te foofu man ciy corriger jigéen ñi jigéen ñi léeg-léeg dañuy foog ni maanaam góor bu takkee ñaareel wala ñetteel ki mujjee takk toujours moo koy gënal ki mu njëkk a takk defe naa loolu jigéen ñiy fas fekk déedéet demeewul noonu de mbiram diw ma gënal moom wala diw laa gën a bëgg su dee am na ca du caaga ne ki nga mujj te loolu sax jigéen ñi dañoo muus ah waa ji kii ba muy bees am na yoo xamante ni jigéen ji ñor da lay bàyyi nga jël sa wàll rek te it nag islam sax da lay bàyyi nga jël sa wàll ndax islam boo gisee ki sëy si ñu may ko juróom-ñaari fan bu dee mësta am borom kër parce que daa war a jël wàll. gan la dañ koy ganale yow dañ laa ganale woon beneen bi ci des moom mooy moom mii bu keneen day ñëwaat bu soobee yàlla nin la def lan koy def dong di nin la def rek lan koy def de kon yooyu moom jurut mer jurut xuloo tomb ak juróom-benneel mooy al xiira wal kalaamu alayha li jëm ci wàllu fiir ak yenn ci mbir yu ñu mën a liiral leeral ci fiir ala kulli xaal tomb boobu moom li ma ci njëkk a wax mooy fiir daal wax dëgg yàlla man gisuma ni bu dee fiir rek yem ca simple kenn waru cee yedd jigéen ñi ndax góor daa fiir jigéen daa fiir foofu nag ma def bay na xaw see ni jàllale waale njàngaleem pas-pas ndax su fekkente ni nit ki kat jigéen ji nanguwut bokk ak jëkkëram ji kenn góor gi nanguwul bokk ak soxnaam si kenn ndax fiiraange mbokk yi yàlla moo gën a yey ci bañ a bokk ak jaamam yi kenn te moo gën a fiir nag comme ni ko yonti boxee alayhi salaatu wasalaam ndax koo xam ne juróo ko jëndoo ko pare yaa ngi koy fiire fa kay fa kay yàlla mi nga xamante nii moom moo lay wërsëgal di la jox ngay lekk di la jox ngay nan ngay sant keneen loolu doy waar kon fiir ci boppam sunu borom daf koo mooñee doomi aadama yi ak doomi awa yi léeg-léeg jigéen ñi danañ fiir waaye fiir dafa am ñaari xaaj mahmud wa mazmum dafa am loo xamante ni lu naturel la te daana am nag ci biir kër yonente bi alayhi salatu wasalaam ci waxtaan woowu ñu defoon ci al muskilatu zawjiya maa ngi ciy wax bokk yi ni ku bañ bëgg kër gu dul am benn jafe-jafe yaa ngi bëgg bëgg kër gu gën kër yonente bi nag alayhi salatu wasalaam dama ne lii xew ci seen biir kër doon na xew ci kër yonente bi alayhi salatu wasalaam ay jafe-jafe parce que loolu moog dund gi ñëwaan nit nite la guy feeñ almas moom lu bon li mooy soldaar yooyu nga xam ni mooy soldaar yi njott commencé yeewu soldaar yi sikk sàkkaak bañante commencé yeewu société bi daal di mujj indi nag léegi sawara suy tàkk soo xam ni li ko waral mooy fiiraange ji bay def yu ëpp wala ngay wax yu ëpp loolu moom dafa ëpp moom wax dëgg yàlla di wax bay wax yu ëpp léeg-léeg nga dégg jigéen ñi wax ba xaw tuuti kon sax ñun ngeen ne wax nañu kalimatu kufr dëgg la fiir am na ndax yent yàlla bi anas nee na ko waaw yow lu tax doo takk ci waa lansaar mu ne ko inna fihim la ghayra ñoom joo ñooñu dañoo fiir ba mu ëpp kon bàyyi ko na ci làmmañu yonente bi alayhi xadis boobu nasaay moo ko solo te xadis bu wér di wane ni kon fiir moom lu am la moo tax xam ngeen ni ummu salama bi ko yonente bi di takk li ma waxoon sànq daf ko ñaanal mu ne ko damaa fiir mu ne ko ma ñaanal la mu dañ amma yi nga xamante ni rek yu naturel la da doon am nag ay xew-xew amoon na yoo xam ni yonent bi tasut ca këram xuloowu ca xeexu ca ndax moom sax dalul xuloo kat benn bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na di lekk ci ayub Aïcha kenn ci soxna yi tibb palaat andi ci néeg Aïcha xam nga jigéen rek moom li mu bëgg mooy ñu lekk palaatam xam naa fiiraa nga jàpp ko muy romb fallaxe fallaxe bool bi fallaxe fallaxe lu bool bi bool bi ni tasar toj kooku maa ngi yaakaar ni kuñ ko defoon tey ci ñun moom ñépp lay dégg yeneen bi daal ni kulu xarat ummukum seen yaaya fiir tey waaye lekk leen rek amul problème accepté na ko parce que moo moom ay gi dëgg la tooñ na nag du ko fal ci tooñ gi ndax bi mu paree def na jëf ju koy waree dafa pare daal di xam nga soxna léeg-léeg da nga koy tamal yoo xam ne bis boo ko xañee moom problème dana ñëw kaf ak Aïcha wax wax ju ree mu calme téye boppam Aïcha ni ko wàllal la da ngaa mer mu ne ko lu may dox di mer mu ne ko àll xew mbaa mbaa bool bi ma kii sànq moo la métti mu ne ko déedéet méttiwu ma da ngaa tooñ te tooñ baaxut Aïcha dem defaat beneen bool fay ko mu ne ko waaw kay gis nga yar na koy ba mu yaru maa ngi yaakaar bii moom du ko tollanteeti moom beneen a ngi nii benn bis yonent bi alayhi salatu wasalaam jug di julli moo tax gis nga gis nga jigéen ñi ku yëgoo bàyyi leen rek ñu fiir na buñ naree maam rek nag ñu ngalaab leen waaye nag gis nga boo bëggee duñ fiir yow yaa bëgg indi lu sotti yow xoolal ku toll ni yonent bi alayhi salatu ak yàlla wóolu ko ba yónni ko ci waa kaw suuf yonent bi tëdd ba guddi xelam daj ak ragal yàlla mu jóg jàpp ba sell su jot ci biir néeg bi julli ndeke Aïcha ngi nelaw mu rocceeku ndànk Aïcha mu yëgu ko Aïcha jékki-jékki làmb làmb gisut yonent bi mu ni é xam na ne daw na ca beneen soxna subhanallah xoolal lii Aïcha moom daal daal sunu yaay la mi ngi noonu daal waaye nag dafa nite nag dafa nite de loolu dafa nite maanaam jëf ji dafa nite ah Aïcha jug comme néeg yi amuloon ay làmp comme ñi di làmbatu di làmbatu di làmbatu ba daj bopp yonent bi alayhi salatu salaam mu làmbatu daj tànk yi mi ngi sam xanaa xam ne day julli ah xam ne day julli waaye yemu ci de xam nga nu def dafa jël loxo bi ruur ko ci biir kawar yi pour xool ndax tooy naam déet maanaam ndax amul fu mu dem ñëw sangu set subhaana rabbina al aala te moom mooy nekk li mu ni maa ngi ko dégg mi ngi naan allahuma inni audu bi ridaka min saxatik wa bi muafatika min uqubatik yàlla maa ngi muslu ci sa mer maa ngi làqatu ci sa kontaante ngir muslu ci sa mer maa ngi làqatu ci jàmmal gi nga ñuy jàmmal ba muslu ci sa mbugal te maa ngi muslu ci yow man de xam naa ne mënuma laa tagg yow yàlla dama lay bàyyeeg ni nga tàggee sa bopp rek anta kama asnayta ala nafsika xoolal ñaan ko bi ni ma amee solo Aïcha moo ko nite de waaye nag dafa nite rek yëfi nit rek lay def Khadija Aïcha nee na man xawma lu ma dal man booy fiire xanaa da nga Aïcha xam ngeen ne Aïcha fekkantewut ak sa Khadija maa ngi yaakaar ne Khadija bi muy faatu Aïcha sax juddoogul faf waaw mos gën a gis kuy fiire bay fiire wujj woo xam ni bi ngay juddu fekk na faatu Aïcha mu ni man xawma lu ma dal man ki may fiire man fekkantewul sax yonent bi su ne Xadija Xadija Xadija nekkati affaire bi moo tax góor tamit léeg-léeg yooyu di ko bàyyi xel moo tax ma waxoon la sànq yenn sa biir soxna yi bul ko wax ci kanam ki ci des Aïcha ne benn bis mënatuma koo muñ mu ni ko waay Xadijam lan màgget moomu nga xam ni ras na ba ay lexam moom foto na ko te gisu ko ay lex yu ras yooyu màgget googu yàlla wërsëgal la ko jànq bu ndaw tudd Aïcha wax a wax a wax ba yeggal yéen tamit ne ko wallaahi amaguma ne ko ko remplacer ndax ba ma ñëpp weddee mooma bañ ma dawee mooma yëkkati alalam jox ma pare nag mer ci bi mu ci paree mer ci Aïcha ne ni journée bi yëpp maa ngi réccu li ma mu ni maa ngi naan kay nañ juboo rek tey moom buñ juboo moom dootuma tuddati Xadija te loolu mbokk yi xool Aïcha ni ma ragalee yàlla moo tax sa soxna si yow bul jàpp ni kii dafa ëpp capacité doomu aadama Aïcha ganes gane ji na doomu bàjjanam mu tegal ko ay palaat pour mu lekk Aïcha ñëw tiim palaat yi rek daw tafu ci miir bi di jooy jooy yu métti looy jooy muy da xelam dafa dem ci aaya ji wax ni wa yawma yu'adu alladina kafaru ala nnaari adhabtum tayibatikum fi hayatikum ad-dunya mu ni lekk yu neex yi dafa tax sama xel dem ci mbaa duñ dem àllaaxira yàlla mu ni lekk ngeen lu neex la ci kaw suuf fii du ngeen ko fi lekka looloo ko doon jooy la xoolal kii ci nim benn waaye nee na romb naa ko muy julli yoor yoor di jooy ma dem marché ba dellu si waat fekk ko muy julli di jooy te mi ngi répété aaya ji inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim xoole kii ni mu ragale yàlla mbokk yi waaye lii dafa nite bàyyi ko mu def lu nite gis nga bàyyi ko mu def lu nite ki ngay woo nii kan la ki lay woo kan la yooyu am na yoo xamante ni bàyyi dëgg la nag soxna si du taaga na nga koy bàyyi muy xaabaabal di wax rek waaye am na yoo xam jërul taskër jërul taskar parce que amoon na muñal rek bàyyi ko ma wax li muy wax rek bu fekkente ni ëppal amagu ca lii musiba ji nag mooy am na ci koo xam ne moom faf moom fiiraange gi da koy yóbba ci weddi sax yàlla subhanahu wa taala maa xam ngeen ni am nañu seen i jëf yàqu te bunt bi moo ko yàq dalika bi annahum karihu ma nazala allah fa ahbata amalahum sunu borom mu ni am na ñoo xam ni yàlla nee na màbb naa seen i jaamu yàlla yépp mu yàqu luñ def suñu borom ni dañoo bañ li yàlla yoonal mbokk yi tahaddud bari ay soxna ci li yàlla yoonal la bokk jigéen ji bis ni ki tey na laaj boppam est ce que moom daf koo bañ wala déet dëgg la fiir nga d'accordal nañ la loolu dëgg la wujj moom neexul d'accordal nañ la loolu waaye mbirum bañ nag moom julit du bañ lu yàlla yoonal sa ngëm yàlla pour mu wér fala wa rabbika laa yuminu xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynakum te yonente bi li muy wax mi ngi bàyyi koo ci yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg nga gis koo xam ne ndeysaan day dem ca musaawadin ya ak saxaratil kuhaan yéefar yu ban ya ak njabarkat ya pour nañ la defal noob ak nan la defal wax ay wax yoo xamante ni daanaka moo tax njabarkat yi doxle parce que clients yu jigéen lañ ëppale te soxla su mel ni fa ëpp am na koo xamante ni moom na mu koy fajee mooy lu mu la mas a xamal ci musiba dana ko wax tey loolu tamit ëpp na jigéen ji dafa war a ragal yàlla mu contrôler làmmiñam même bu meree bu mu wax lu dul dëgg bu mu wax lu dul yiw kon jaadu na nit ki dëgg la am na lu ko metti ku góor ki ne naxtaananteeg moom ndànk bar ndànk ba wàcce ko loolu mooy li gën waaye jigéen ji kay na gërëm dogal suñu boroom sant yàlla ci xéewal gii mu ko defal te it nag mu soppiwu doxalin nag mu soppiwu doxalin nag parce que yow doo nga ci kër nag bokkatut nag léegi terrain bi xam nga bi fi benn ligne téléphone nekkee gis nga bi fi benn ligne téléphone nekkee créditaire amul njëgu téeméer amul njëgu deux cent portable cher wooteel sa crédit bi soo ko def dama koy nangu léegi lu ne amoon na fi wax dëgg yàlla benn sëb ci cin nag nu ko neex tëbee ah waaye bi njekki-jekkam yàgg moom wenn wujj ni dageet ñëw commencé indi yeneen affaires yu bees yu amut woon weneen wujj ñëwaat commencé indi yeneen affaires yu bees yaakaar naa ni ñëpp am nañ téléphone léegi commencé di woote moo tax wujj am na solo trop léegi nag ndaw si nag dañ naan ko soppil doxalin nag parce que léegi kat bu njëkk yow dong yaa fi nekkoon li waajal isa qalat xuzaami fa saddiquha su waxee rek ne leen waaw est ce que ah boobu day fekk yow rek yaa fi nekk waaye nag bu fekkee am na keneen ko fi nekk nag mbir mi faw mu suppeeku nag léegi te suppeeku googu dina gën a leer ci tomb bi mujj nga xam ni kon am ay soxna lu ëpp benn am nay njariñ ci bunt bi kon nit ki mu yëg ni kat léegi nag sama morom laa fi nekkal te it islam njëkkalante bu jëmee ci baax ba ñu ko de waxu ci dara njëkkalante moom bu jëmee ci buntu baax wax ci dara kon suppeeku war na an nuqatu al axir mooy tomb bu mujj bi mooy at tawfiqatu rabbaniya fi taadudi zawjat léegi nag kéemtaani sunu borom yi nga xam ni nag moo nekk ci bari di soxna fukki tomb ak juróom benn wala juróom ñaara ngi yu ma tënk yoo xam ni benn bu ca nekk maa ngi yaakaar ni waxuma la góor ñi mooy jigéen ju ko dégg bu dee jamono bi nga koy dégg fekk na ngëm gu wér ci sa xol waxuma la sax ngay bañ am wujj waxuma la sax nga cay nga koy feeñal waaye damaa jàpp ni da nga dal di yëg ni fi mu ne yërmande ji war naa yegg ci ma xaj xajal ñeneen ñi ñëw dugg si bi ci njëkk mooy islam day risaalatun aalamiya te dafa togg ñi nga xam ni ñoo nekk ci biiram nan ko jotal nan ko wasaare parce que daa am ñeneen ñu fi nekkoon l'islam ñëw tàbbi ci biir géew bi kon faw mu am population bu doy te loola bari ay soxna benn facteur la ci bari la ay doom benn facteur la ci ak yeneen ak yi maa ci taamu ñaari ndax moo ma tax a jóg tey kon su fekkente ni gëm nga ne l'islam moo war a dominer moo war a ëppale ubbi buntu soxna yi kenn ku ci nekk bañ a taxawaalu mu am fu mu jàpp njaboot gi mën a sikki ñu yar leen ci diine damaa jàpp ni bokk na ci xikma yi riy tawfiq yi tax suñu borom yoonal bari la ay soxna ñaareel bi góor ni ko yàlla bindee moom mën nay produit di am doom ba àgg soixante ans léeg-léeg sax mu ëpp soixante ans léeg-léeg mu àgg ci téeméer ci leen ci waxi borom xam-xam yi selon wér bu nit ki dëgëraayam jigéen moom ni ko yàlla mooñee bu àggee quarante ans lu mu ca teg bénéfice am la waaw te jiir diir boobu yépp day nàmpal di gis baax di leneen waaw ndax ci xeriñ mooy góor gi moom na taxaw di xaar soxna si ci diir boobu yépp wala mu dem sabab lu jiwaat feneen ci beneen soxnaam yaakaar na lay xikma mooy mu am keneen wala keneen di ko xaar ndax mën na ko bañ a mën ci loolu mën nañ cee déggee ci ñetteelu tomb bi ba tey nii jigéen moom yàlla mayu ko mu nekk waaj ci jamono bu nekk borom këram mën a ànd ak moom ci wàllu sëy te góor moom waxtu bu nekk yemb na pour ànd ak soxnaam ndax kii day gis baax léeg-léeg mu am doom léeg-léeg mu nàngam waaw góor gi bu fekkente ni soxnaam dafa gis baax wala mu am doom nekk ci gisin mu nar a yàgg wala mu feebar mu aajoo bànneex ubbil ko buntab demal wuti coro ci biti nga njaalo ji bi maanaam ak nga jël beneen soxna mu ne ci kër gi ñaar yooyu ban moo ci gën a nekk xekma xekma mooy jëli soxna mu ne ci kër gi ñeenteel bi borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni jigéen ñi àddina bi ëpp nañ góor yi àddina bi fuuf ci jamono joo xam ni jàmm moo xew jamono ji jàmm di xew guerre amul dara amut jigéen ñi ëpp nañ góor ñi ay yooni yooni yoon waaw bu fekkee jamonoy jàmm lañ ëpp góor ñi kon jamonoy ay bu amee muy xeex am ci xeex ku ne xam ne ni góor ñoo ëpp lu ñuy dee kon luy xew danañ gën a ëppaat góor ñi foofu ma ne ndax afa min saadatika uxti almuslima wa faraxika an taisha faridan maa zawjik ndax yow sama mbokkum jurit mi sa teraanga li nga yëg ni mooy teraanga mooy yow kese ak sa jëkkër ci waxtu woo xam ni ñi nga bokkal baay ñoom amul jëkkër parce que keneen keneen waroon a xajal daa def ni yow sa rakk bi nga bokkal ndey ak baay ak sa mag ñi nga xam ne yaa ko jëkk am borom kër ñoom ñëpp ñi ngi toog kenn mënta am borom kër lu tax parce que góor ñi dañoo bari ba yegg seeguñ ci ñoom te it fan leen war a mën a xajal ñooña fatt nañ ko parce que yaa fatt di ñoom kon yow nga toog ngay dund ak sa borom kër di bàyyi say sœur ak say doomi sœur ak say doomi bàjjen ñuy taxawaalu amuñ genn góor gu leen wéttali tumuranke lool doyadi lool ndax yow loolu moom mooy sa ngëm yàlla wala déet kooku laaj la boo xam ni man duma ko wutal tontu waaye soxna yi ñoo moom tontu da ngay gis ci yenn ci góor yi muy juróomeelu tomb bi ci tawfiq yàlla yi nekk ci baril soxna dafa am góor ñoo xam ni benn soxna mënu leen a doy ci wàllu bànneex la loolu du ay bàkkaar dara nit nat nat nit ki ni ko yàlla bindee na am na koo xam ne benn soxna doyu ko loolu nag ñi ëpp ñi muy dal mooy ñi féete fi gën a tàng gis nga boo demee ci réewu tugal yi boo gisee ñoom du ñu am problème boobu xam nga lu tax mooy seeni réew lépp day sedd te lu mel nii góor du ko am ci waxtu wu sedd ci jamono climat bu sedd nit ki jaww ji mu dëkk nu mu gën a dékkoo tàngoor ca la góor yi nga xamante ni ñoom seen bànneex dafay bari lool ba benn soxna du leen doy waaw su boobaa nit ki benn soxna doyu ko ndax day dem mu caaxaani wala lu muy def ak soxnaam wala boobu day jël beneen soxna ànd ak jamono jooju fekk na jigéen ñi sax nag ñoom ci seen jëmmi bopp yëg nañ masala mii muy juróom-benn lu tomb bi xeeti journal yi nga xam ne ñooy génn di waxal islam léeg-léeg nga gis ci journal boo xam ne da nga gis këyitu kalaame jigéen di ko def am na benn majalla boo xam ni Égypte la doon génn li may nettali sa doon te xaw naa yàgg waaye mën a nekk tegtal majallatul i'tisam al misriya benn jigéen dafa bind benn lettre ci benn borom xam-xam di sàkku fatwa mu ni moom borom këram ni ko yàlla bindee dafay soxla sëy lu bari te ndaw si nee na man loolu mënuma ko dékku parce que daf may lor te su ma ko gàntalee maa ngi koy gàntal ci àq bu mu am ci man te su ma ko ko nangulee maa ngi koy nangul ci ab àq bu may loroo man kon nu may def kii maa ngi yaakaar ni ku ko waxoon na sa borom kër wut beneen soxna du wàññi kon lii nit ñaa ngi koy dund jigéen ñaa ngi koy dund te ndaw si kat mu ni man kat dama am ay doom aajowoo leen yar aajowoo leen nangam ilaa axiri sama wér gi yaram mayuma loolu sama borom kër bëgg te lii nag moom lu bët di tege gis nañ muy afaral di am ay jafe-jafe mën naa am ci biir néegu say fekk lii moo ko waral loolu du bàkkaar dara noonu la yàlla bindee nit ki su boobaa yaakaar naa bu amoon ay soxna defe naa bunt bi dana gën a yomb. juróom-ñaareel bi mooy jigéen da day jànkonteeg ay coono ci ëmb ci am doom ci gis baax rawatina ci mujjantalu ëmbam buy imbi nga xam ne day aajawoo sax sori góor faf nag moom. jamono jooju day aajowoo sori góor nga xam-xam saxal na lu mel noonu sori góor ci wàllu sëy la am ci dam waaye léegi góor gi moom su fekkee benn soxna la yore moo tax dinaa wax gars yi ni am na njàngale islam yoo xamante nii boo yoree benn soxna moom muñal rek bul ko jiim ah yow bu fekkee islam dani la bu soxna si defee naka sa dut noonu na nga ko yar yar ga bokk na ci na nga ko tong ci kaw lal yow soxna si boo ko tongee ci lal moom mu xam ni yow yow kese moom kese boo ko tongee doo dem fenn moom it du mën a dem fenn segam yaa ko mën a muñ la lay wax mu muñ ko may it moo tax da ngay jaay ful la nga féete fële mu ëpp la fay da féete fële parce que xam na ni yàgg yàgg dana metti ci yow waaye nag su fekkente ni da ngaa mer nga féete fële ndax tey la dimanche suba la altine waaye ba talaata ba talaata boo xëyee solo ba jekk parfois jaar nii jëm fële jigéen du mën a muñ loolu day xam ni li waa fii doon mbañ waa fee dañ koy nangu moo tax lu gaaw la ci yar ay soxna góor ñi gën a mën a yar seen soxna ci buntu boobu mooy ñi ëppal benn loolu la tekkiwul mooy ki am benn mënu ko waaye foofu la gën a yombee laa bëgg a wax beneen bi ci des juróom-ñetteel mooy jigéen ji dana nekk koo xam ne yàlla da koy nattoo ngeen ànd ay at du ngeen am doom mu faju faju wéru parce que suñu borom tuddalu ko am doom ndax xikma ak yërmande mooy nga wàcc ko su ko defee yeneen góor yëpp wàcc ko parce que xam nañ ni sëy naag diw ay at amul doom kon du am kata doom kon yow moom torox nga dootoo amati jëkkër wala xikma mooy nga téye ko te moom mi ngi bëgg a continuer sa yow nga bëgg a am doom dem tekki keneen amaan na sabab lu ca yaakaar naa ne téye ko jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy bañ wujj sax ñoom yëg nañ ni loolu kat moom mooy la gën juróom-ñetteel bi wala juróom-ñeenteel bi am na jigéen ñoo xam ni góor ñoo xam ne yàlla day nattoo soxna yu bon ay jikko loolu day faral di am bon jikko lool sax soxna soo xam ni moom daanaka moom dafa mel ni daal ni jigéen di daboo bànneexi jëkkëram moom noonu lay daboo naqaru jëkkëram moom loolu day faral di am loolu nag ñaaw jikko da koy léeg-léeg day nekk lu lu lu lu mënta suppeeku ci nit wala lu jafee suppi loolu day faral di am nga gis góor gi daanaka foo ko fekk mi ngi misère sonn lool jaaxle fekk daal bu wàccee au lieu que mu dem këram te mbaambalu fu ne mu jàdd jàddaat fa parce que la muy fekki daa metti te gis nga tontu yu gàtt yi day dagg xol tontu bu gàtt jigéen bi ko gën a man moo gën a mën a musiba jigéen dafay nooy ay baat neex ay kàddu moo tax nag yor ay soxna bokk na ci xikma yi mooy li lay metti fee nga di ko bànneexoo ji fale rek ndax ñëpp moom néew na lu ñuy faral di nuroo su ko defee su boobaa fase daw sa ndax ay jikkoom yu ñaaw góor ñi di ko daw ak dem takki keneen ku rafet ay jikko amaan na mu ñëw suppi ko te it day faral di suppi nag su nga bu la yàlla war a sëgale lu mel noonu nga muñ ko ngir yàlla takk keneen ku baax ku am ay jikko yu rafet moom it mu ñëw fayantoo taxu koo jóg waaye defaru gis nga jigéen day rey bu baax sax am na yoo xam ne léeg-léeg muy soppi ko yu gaaw yi may wax moom defe naa gaa yi xam nañ ko xam naa même bu bees ko sarxawutit gaa yi xam nañ ko léeg-léeg gis soppee ko yu gaaw yoo xamante ni daanaka kalbarqi comme melax fekk li ko waral mooy gan gi ah yow koo xam ne yow boo xëyee bala ngaa jóg da ngay nelaw ba ni fodd foddooral ki néeg bi taq ëtt bi taq ndab yaa nga ca ëtt ba lu mu wax nga teg ci baat kii moom fajar jug na bale ëtt bi defar xale yi ba topp toolaa say doom yow yow ki jiitu defaral sëñ bi ndékki mu ah yow da ngay xëy benn bi rek ndaw si jóg heure bu ndaawul jóg parce que terrain am ay ay ñeneen da cee baax de ñeneen ñoo xamante ni marchandise mi nga yore lan yore da cee baax lool moo tax marchandise yi yombul woon yëpp di marché bi saturé rek ci la commencé yomb loolu ci dund gi yëpp la kon su boobaa nit ki na bàyyi xel ni kon baril ay soxna dana rek xikma ju rëy fukkeel bi qad yutawaffa ahadul muslimin fa yatruka zawjatan wa awlaada kenn ci ñun mbooloo mi bu faatu woon tey bàyyi ay doom ak a soxna ndax xikma mooy góor bu mu takk mu dem takk ku muy sababloo ay doom kee jot naa ami doom ba pare kenn du ko takk ñu bàyyi ndaw sax ku sa jëkkër faatu rek yow moom pare nga ci dund gi yow su société bi islam bi ñun suñu yërmande foofu la yegg jigéen ñi seen yërmande mooy képp ku am borom kër ba borom këram faat am ay njaboot ñu ni ko ah yow seetal noo def yow al musibatu kullul musiba ndaw si day nekkoon jàmbaar di góorgóorlu di muuru mu jot di nangam léegi su ko defee góor ñi jëluñu ko jigéen ñi yaataluñ ko musiba ji muy jur lan la musiba ji muy jur mooy nga gis léegi mu commencé wàññeeku ñëwatul jàng si muuraay gi jotagul benn waaye taxaw fële di wax ay waxam fekk moom da nga xam lu muy dund lan la yow kii amul ki nga ko yoral njabootam te foofu maa ngi jàllewaale beneen buntu def ko bay na xaw say ni ñi nga xam ni ñoom ñooy wax ni dañuy takk ay soxna nañu ragal yàlla ci buntu boobu baril ay soxna tekkiwul ni mooy képp kuy takk na nga takk ndaw bokk na ci yërmande ji li taxoon takk ay soxna am te yonent bi saa sallam mi ñuy roy looloo ëppoon ca la muy def mooy fekk sa mbokkum julit moo xam ni faatu na bàyyi ay njabootam mu wér la ni kii lii la bëggoon nga uuf soxnaam uufalaaleel ko njabootam yaral ko ko wallahi gëm naa ni tuyaaba julit di am ci takk soxna bii moom day doublé moom bii tomb moom dama ko defal xusuusiya moom day doublé parce que dafa am yeneen sabab yu ci laxasuwaat li ëpp nag góor ñi duñ faral di def lii loolu nag tuuma ju rëy la ju dal ci seen kaw ak sunu kaw ñun ñëpp sunu borom ni wala yaxsha alladina law taraku min xalfihim durriyatan daafa mën nga caa déggee tamit ni kon bàyyil xel ni su doon yow a tey boo faatu woon yow jóge fi ñu bàyyi sa njaboot ñuy tumuraanki wala benn góor ñëw jël leen uuf leen ak njaboot gi di leen toppatoo maa ngi yaakaar ni loolaa lay gënal fukkeel beeg benn anna taadduda wasilatun kabiratun daatu manafiin kathira baril ay soxna kat moyen la bu mag bu bari ay njariñ lool nag fi tarbiyati nisaa min an naaxiyati diiniya wa dunyawiya baril ay soxna nag xikma ju rëy ci nekk ak tawfiq ju rëy nag ci mën a yar jigéen ñi ci naka ma ne ah góor gi de bu fekkee dafa amoon ay soxna bu amoon benn soxna ay ndigalam di yeex moom bu dollee dootul yeexati bu soobee koo xam ne yow mbubb mi nga war a xëyee suba boo ko fi bàyyee pour ñu fóotal la ko ca paan bara yi yendu fanaan fa koo xam ne yow daanaka daal say bëgg-bëgg daal demeewut noona léegi nag léeg-léeg mu nekk ci càggante la mu nekk ci leneen bu nekkee càggantee ko waral moo tax may wax ah keneen ñëw koo xamante ni moom yooyu yëpp du ko seetaan bu yàggee day yóbbaale kii la te du ko wax kaa ñu dem day jiit rek kee topp ci ginnaaw kon kat say ndigleeg say tere moom léegi day daal di commencé yomb ndax kat xam ngeen ni jigéen dañuy tisaabu dañuy njëkkante parce que kenn ku ci nekk bëgg sa borom kër gën laa fat te jigéen nag lim gën a kontaan nag te loolu dafa nite nag timit ci nit yi nite yi la bokk nit ki lu ragal ragal yàlla boo am sax mën na ca bañ a mucc gis nga jigéen ji borom këram sant ko mu bañ yëkkati ko jox ko kee mu yëg ni da nga kaa jox kee day sawar ci liggéey bi mu koy liggéey parce que poñ lay wut moom it poñ lay wut de léeg-léeg nga gis jigéen ji bu fekkee ragal yàlla nekkul ci moom nga am ak sa soxna problème mu dem seen kër ah ka ca des moom xam naa de xam ma ñu des lu ñuy ñaan waaye moom day est-ce que est-ce que na ñëwaat lay ñaan xam nga yooyu maanaam ki ragal yàlla loolu du nekk problème am waaye ki muy nekk problème mooy ki nga xamante nii moom wax dëgg yàlla ragal yàlla nga des na fukkeel beeg ñaar bi taaddud yaalamu rajulu xaqiqata taami alxayaati zawjiya dëgg dëgg nag ci bareel ay soxna ci la nit ki xamee nag cafka gi nekk ci dund gi nag dundug sëy nag laa bëgg a wax xam nga sunu borom dafa def ku man lépp amut nag moom ku man lépp moom amut ci lépp xadija daa tane woon rek moo tax yonent bi yemoon ca alayhi salatu salaam ba mu fi jógee wut na ñeneen li la nga dégg ko ni man dama yem ci benn parce que sama kii mat na lépp loolu moom waxi neexal la rek waxi neexal la rek waaye yooyu moom te yooyu sax ëpp na di wax parce que góor moom même boo ko narut noppi rek parce que jamono daa gaaw ci soppeeku léeg-léeg nga gis góor gu ni man du ma kii nangam nangam def ay at rek ndeysaan xanaa loolu mooy liñ naan li borom xam-xam yi fiqi naan li may waxi saafee ju yàgg ak li may wax ju mujj ci xanaa nga dugal ko ci buntu boobu rek loolu laa waxoon léegi saxal naa ko waaye yooyu daal laa wóoru te it bokk na ci muskila yi indi sëy loolu la ci sëy da ngay gis góor gi gëmloo soxnaam ni du ma am beneen soxna dem ba mu yàgg nag mu bëgg ko wut jafe-jafe foofu ma tàbbala laa ci beneen xaw say ni mooy gis nga bu dee góor gi nar na ko dëgg-dëgg te man ko bu mu ko yeexee na ko nef góor ga daana ma wax loolu daana wax ni boo ko naree dëgg dëgg dëgg nef ko boo ko naroon nga jóg fi nef gi mooy lan gis nga am doom ak am doom ni muy jege yoo ndax gis nga jigéen bu fekkee dem na ba am doom ju toll ni wujjëm tey ngeen di jafe-jafe sa kër góor gi saa bu yéexee takk ba jigéen ji dem ba naagu jàpp ni kii dootul gis nga léeg-léeg nga gis ku def lu ëpp fekk naagoo ko waral xissa bii may bëgg a nettali bu dul woon ki ma ko nettali siqala te nee na xam na ki mu doon man xawtuta ko duma ko gëm pour wan la ni nit ñi léeg dañuy ñàkk sago sax ci wutal wujj koo xam ni borom këram noonu la def yàgg lool ba mu jéggi dayo ba mu foog ni dootul amati benn bis mu aye tuur ci këram xam na na ca la ñuy fekk mu woo ay xaritam pour xarit yi wax wax ndaw si ni ko dañ lay wutal wujj parce que moom ñi mewu ko wax xam nga daa am góor ñoo xam ne ndeysaan ñoom it moom ñi ñore ay commissaire lañ ci seen biir kër bi ko ko xarit yi waxee dafa mer xataraayu ci kër gi wax waaye li gën a kiimtaane dafa rootoon siwo ci robinet bi pour sang teg ko ci digg ëtt bi terax laayu génn mer fekk ñi ngi teg siwo bi ñu tegaloon gan pour pour bisaa subhanallah mu jël siwo bi saa bi dugg douche mbokk bi ma nettali lii ne mu xam na ki ko def duggal siwo bi saa bi xanaa sax ku duggal siwo bi saa boo boo xoolee di gis mu xam mu dugg mu dugg xam nga yooyu wax dëgg yàlla ñàkk sago dëgg la nag ñàkk sago dëgg la nag xanaa wax dëgg yàlla boo xoolee sax di nga xam ne lii moom du ndox sax ba waaye seen ki day toll foo xam maîtrise dootu ko amati moom daal xëppoo na ko ba génn doo nga xam ne moom li ma xëppoo daa xonq xam nga yooyu wax dëgg yàlla ñàkk sago dëgg la day faral di am nag te sax fi mu ne day faral di am da ngay gis koo xam day ñàkk sago dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg gis nga léeg-léeg maanaam nit ñi wax dëgg yàlla wax ci ba wax ci ay wax yëpp sax wax ci ba wax ci wax yooyu wax dëgg yàlla kon yooyu mat naa bàyyi xel su ko defee kon nit ki yeex koo def ba mu ëpp ci buntu boobu tamit bokk na ci lor fukkeel beeg ñaar wala fukkeel beeg ñett mu daawamatul mahabbati bayna zawjayn baril ay soxna bokk na ci xikma yi mooy day indi cofeel gu sax nag xam nga lu ko waral mooy ida gaaba anha zawjuha fi baadi al ayaami izdaada ishtiyaaquha ilayhi wasdaada ishtiyaquhu ilayha xam nga chaque jour nga ñëw aye fenn bokkut ak tey nga aye fii suba nga aye fali loolu nag tekkiwul ni mooy góor ñi yëpp jug leen wuti ay soxna waxuma loolu ba léegi de li ma bëgg a wax mooy bokk na ci kéemtaani suñu borom yi ci nekk mooy day gën a suuxat ay mbëggeel ci sa digganteeg moom li koy waral mooy gis nga góor gi bu fekkee dafa am fu mu aye fa booba dem fa ca des dig digal boobu suppeeku yu bari day am ndax kat ndaw si boo dellusee da ngay beesaat teq ci moom mu beesaat teq ci yow ndax dalaa namm ñaareel moom mooy jigéen ci boppam li koy indil problème bokk na ci mooy muñ gu muy muñ sama borom kër aye fële doo xam lu mu leeree reeree doo xam lu mu fa nekkee tëdd jot te it nag nee naa góor ñi nag nañ ko jàppal daan jigéen ñi daa metti nag dafa metti nag wax dëgg yàlla ndax yaa ndaw si kese kese kese ci ci ci benn néeg bis bu set guddi léeg-léeg nga jékki-jékki rek ni ko faaj ci digg bi xaaj léeg-léeg nga jékki-jékki rek woon ko ginnaaw dem tëju fële dëgg la islam wala ko yoonal nag waaye nag wax dëgg yàlla bu defee yëfi sentiment bàyyi ko rek te nga xam moom daa nitee rek léeg léeg sax mën nañ la faa fekk di la indi kay defaral ma sama lii ak kay fekk defar la wuñ dara te ñuy indi ay affaire rek yooyu yëpp nangul rek kay defaral ma sama lampe bi daa burleeg kay keel ma fekk yooyu yëpp daanaka yëfi nite la rek yooyu moom bàyyil mu jàll rek bu la ko waxee dama nga defaral ko rek nga génn da dem sa yoon yow kon mi ngi noonu bokk na ci yi waral tamit nit ki di mën a muñal nag soxnaam ndax wax dëgg yàlla gëjanteeg nammante bu amantee wax dëgg yàlla muñalante day daal di gën a daal di bëgg a ñëw fukkeel beeg ñeent taaddut ci boppam dafay faral di sabab nit ki mën a dékku ay coono ndax bu la wéri ni ki yéngi lay xaar kee di la xaar kee di la xaar ak njaboot gi defe naa dëgg gën a góorgóorlu fukkeel beeg juróom mooy day wàññi liggéeyu kër gi ndax xam ngeen ne jigéen ji kat bu fekkee toll na ci yenn barab yi ci ëmb yi demee noonu sëgg du bari du ko yomb liggéey bu diis kadaalika defe naa wuti mbindaan moom bu fay mbindaan ma nee am defe naa takk soxnaa ko gën a yomb pour man beneen bi ci topp maa fihi min kasrati sawaab sawaab tiyaaba yu bari yi ci nekk ndax kat ay jibaalu tiyaaba la yoo xamante ni mi ngi xaar nit ki ba ci luqma bi nga xamante ni nit ki mi ngi koy jox soxnaam loolu da ciy am tiyaaba li may jeexalee mooy ab ndénkaane ndéey boo xam ni sunu mbokki jigéen yi ñoo ko moom bi ci njëkk mooy ñu fexe ba fiiraange gi bu mu la yóbbee ci luy meral sunu borom subhanahu wa taala lu mel ni laaj nañ la fase comme may ma sama baat ma dem loolu musiba la wala boog diw boo ko waccut man duñ moo tamit àndatu yent yàlla bi ne bépp jigéen bu laaj baat may ma sama baat te fekk amoo ci àq àjjana yow jërul ngay xalaat du la xeeñ yow ñaata jigéen ñooy fooyee may ma sama baat te fekk musiba ju rëy moo ci nekk kooku mat naa bàyyi xel loolu xadisa mi ngi ci sonon abi daawud ñaareel moom mooy tiitalu gi it matu ko jigéen ñi léeg dañuy faral di ëppalante comme exemple sama borom kër mooma defal lii te fekk defalu la dara loolu lépp waaye bëgg laa bëgg koo jaxase ka ca des rek la ndax ñëw ku la jëndal lii mu ne lii de sama borom kër bu fekk jëndalu ko ko bëgg rek bu ko defee diw ak diw bu dekkee mu ne ko waa yaa ngi jëndal diw nangam jëndaloo ma asma nee na benn jigéen dafa laaj yonent ni ko ndax loolu dagan na mu ne ko déedéet loolu ci bàkkaar yi gën a bon la bokk kon maa ngi yaakaar ni waxtu wi tënk nañu adunnu anni qad waffaytu wa aradtu min hada al mawdu nu ngi yaakaar ne xëy na yi ëpp solo jàll na laal la bu amee yenn yoo xam ne ay leeral la yu leeru borom xam-xam yaa ngi fi nu ngi ñaan yàlla tawfiq ak sadaat fi l qawli wal amal wal ixlaasa fi l qawli wal amal وأن لا يجعل للشيطان نصيبا في أقوال ولا أعمالنا إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على محمد
di ñaan borom bi subhanahu wa taala bari ko xam bi di ñaan yàlla bëri bu mel ni moom ngir ñu gën a mën a jëriñ di wax ne rek thème bi nga xamante ne tey moom lañ doon waxtaane thème actualité la kon mawdu la boo xamante ne waataa yi la bu ñuy dund la tey su dund yenn réew yi yu aju ci lor yi nga xamante ne moom moo nekk ci ñàkk taaju ku dund ci yenn réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci xalit bi di nga ko di nga ko jot bu baax a baax di nga ci gis ay réew yoo xamante ne réewu jullit la waaye takk ay soxna yu bëri siiwu fa ba moo tax nga gis jigéen suñ ko fasee man nga ni kooku dootul am jëkkër maanaam gis ay mbir mi la wala jigéen su borom këru faatoo man nga njort ci juróom-ñeent fukk ci téeméer bi kii dootul am jëkkër mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne ay réewam koy dund seen i borom xam-xam wax ci jam ci def ci lu nekk waaye xal lu amul kon waxtaan la boo xamante ne ci heure la dañu geneen kàddu bi daal danañ day xaw a doon taaliq waaye amaale laaj mooy côté séddale ay ah su ma juumul lu war la ci maanaam képp ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax nag nekkul li war ci yonent bi mooy ni aaya bi la ñëwee tur bi man tusaa mu dina wa tur bi ilayka man tusaa ak tafsiraat yi nga xamante ne ñoom ñoo wax ci aaya bi te dina gën a firndeel li ni mel muy xadis bi nga xamante ne wax na ci bunt bi di wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam benn guddi daan na ci wëral soxnaam yépp sangul ko genn sox sangul ko genn sangu loolu di gën a wane ne maanaam yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na gën a xusuusi yi di leen yàlla jagleel waaye tamit loolu dañuy gën a firndeel xadis bi nga xamante ne moom la suñu yaay Aïcha ne est-ce que nekkul ci yenn soxnaa bi la lay ñu yëg ne ne su demee maanaam maanaam lu ko war la am na lu war a def salaamaaleykum wa rahmatulah fekk mu ngi ci loolu.
Seydou Sall
waaw ñoo xam ne sax ñoo xam ne sax ak kalima salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh suñu mbokk mi ñu ngi koy ñaan yàlla ba yàlla sàmm yàlla ba yàlla aar yàlla ko yàlla dooleel kattanal ko yàlla na yàlla gën a ubbiwaat ay gëtam gën a leeralaat gisam ndax lii mu waxtaane tey fii nekk na loo xamante ne ni ko mbokk mi waxee léegi ñëpp ñu ngi koy dund mu des nag dundin wa day ute si ute ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy dugg li ñuy wax taxawut mooy ut ay soxna yu bari dafa doon loo xamante ne l'islam moo ko santaane te ni mu ko waxee l'islam moo ko jëkk gis nañu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi lislaam santaane loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk wone taxaw bii nan lay ne fan la jëmet mooy ñi nga xamante ne dañoo doon dund si jaahiliya bi ñu duggee lislaam fekk ñenn ñi ñu ngi yore woon juróom-ñeent ñenn ñaa ngi yore woon lu ëpp loolu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def leen ne jël leen si ñeent ñi ngeen gën a bëgg ñi si des ngeen libéré leen kon loolu nga xamante ne yonent bi wax na ko def na ko loolu moo war a nekk ay jullit yi kon loolu lañu war a firee aaya yi ñu bañ kaa firee beneen déggiin ba tax na suñ loo arabie dañ kaa war a sànni si àll nga xam ne alquran dees ko firee lu arabie rek déggi na waaye dees koy firee li nga xamante ne kañ waroon a jottali noonu la ko firee noonu la ko jàng ma ne laa def mbokk bi ñang may ñaari laaj benn bii nee na waa ji bu fekkee ne tongoon ak soxna mu xam ne tey la dimanche ëllëg la samedi bu kii xamee talaata lay.
alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain jazakumullahu xayran xam naa li may njëkk a wax moom ab laaj warul jóge ci borom xam-xam di jëm ci ndongo loolu moom laay tontu cheikh bi ab laaj moom wax dëgg yàlla warul jóge ci borom xam-xam di jëm ci ndongo. waaye loolu samir misaal rek misaal laa doon joxe rek maanaam dama doon joxe misaal rek di wàññi ci ay bis comme ñu ngi ci bisab dimanche suba la altine ginnaaw suba la talaata maanaam misaal rek laa doon joxe waaye bu ñu jëloon àjjuma sax day baax beneen bi jeex jazakumullah xeyran ci taalif bi mu doon def sànq maa ngi ci doon ishaara sax doonte dama ko xasaf rek jàll ci loolu mu wax ci ñi nga xam ne dañuy sukkandiku ci aaya jooju di daganal lu ëpp benn li tax boo gisee leeralu ma ci lu bari mooy borom xam-xam yaa ngi fi dinañ ko mën a leeral ñaareel moom mooy comme ñoom seeni kàngam ci seen jëmmi bopp boo leen laajee fuñ ko teg ñun la ci seen bakkan kooku kay jërëtul ñu ca yàq wax di ca sonnati loolu moom alakul xaal li gën a wér mooy li mu wax yonente bi alayhi salatu wasalaam moom day yàlla dagal na ko bopp benn ëpp ñeent waaye keneen ku dul moom xatta Abubakar bu fekkee du jaam doo ëppal ñeent kon buntu boobu moom ñu bàyyi ci xel. beneen bi ci des moom mooy loolu ma ko doon wax maanaam loolu misaal rek laa ci doon joxe bu fekkente ni nit ki xëy na mi ngi nekk ak soxnaam jafe-jafe am mu wér ko ni moom bis bu nekk saa bu ayee ci moom lay dellu si waat kooku dana wuuteeg nit ki mu xam ni am na keneen feneen fu muy dem parce que jigéen ñi loolu dañ koy séddante léeg-léeg defe naa loolu moom aji laaj ji moom xam na ko bu baax su ko defee jigéen ñi léeg-léeg yooyu dafa bokk ci yar bi nga xam ni mën na koo def ci ñoom. maanaam moo xam génn kër dem kër la moo xam génn néeg dugg néeg la loolu dafa am lu muy def ci nit ki ci xalaat gu muy xalaat ni kat man li ma doon bañ lépp boo demee diw dana ko nangu loola mën naa war a nit suppeeku te coow du du bari wala wax sax du ca bari beneen bi am na mbokk mu laaj maanaam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg gi mu bëgg Aïcha ba fësee noonu ndax loola day feeñal faiblesse doomu aadama wala boobu lu xew déedéet déedéet dafa am loo xam ne dafa nite bul fàtte nag yonent yàlla bi alayhi salaatu salaam yu nite yu nite yi moom da ciy nite dafa am yoo xam ne dafa nite bu ñaq jotee day ñaq bu ree jotee mu ree bu daw jotee mu daw bu bëgg jotee mu bëgg bu bañ qul innama ana basharun mislukum mitlukum loolu du faiblesse déedéet loolu du faiblesse de maanaam bëgg googu du bëgguk faiblesse parce que bëgg gi ñuy tuddee bëgguk faiblesse mooy bëgg goo xam ni day yóbbee nit ki muy def naka sudut noonu waaye yaakaar naa ni bu Aïcha demee ba nar a gënale boppam ci kaw Khadija day mel ni bëgg ko day daal di faral di suppeeku moo tax Aïcha moom xamoon na loolu laa chaq moo tax léeg-léeg bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mosaan wax lu jëm ci Khadija day noppi ci mujjantal gi kon loolu lu mën a nekk la doomu aadama noonu lañ ko mooñee defe naa waxtu bi dafa mel ni tënku na mbokk bi jazakumullahu xeyran maa ngi yaakaar li mu doon leeral lu am solo waaye moom it waroon na koo continuer ndax leeral la bu mat a bàyyi xel am na yoo xamante ni ci xusuusiyaati nabi la bokk sallallahu alayhi wasallam lu mel takk lu ëpp ñeenti soxna ila axiri yu mel noonu foofu sax ma leeral ci benn masala moo xam ni amaana sama xelan ci doog a dem léeg-léeg mbokk yi dinañ am problème boo ayee fii war a dugg fee wala demee déet looy xuraafaat rek xosaabalaat kese dëgg la nag ki moom ay gi moom moom ay gi am na mbokk ma moo sama woo téléphone ni man maa wax ni ay gi guddi kese kese kese la bëccëg bokk ci loolu waxuma ko déedéet loolu waxuma ko loolu ma leeral laa ko tamit ndax léeg-léeg wax day faral di yegg foo dut xam ni man maa wax ni ay gi guddi kese kese la bëccëg boo ko ci ko bëccëg fu la neex de waxuma loolu de ay gi guddee tax ñuy wax daanaka noonu laa ko waxee woon maanaam la ci am solo dëgg guddee tax ndax bëccëg te lii may wax waxu ibni qudaama la boo delloo ci almughni dafay wax ni li ëpp ci li tax ñuy wax ay gi guddi la ndax bëccëg gi dañ koo programme pour nit ki dem liggéeyi guddi gi mu jox soxnaam li nga xam moom mooy ay ndax nit ki bu soxlaa lenn ca néeg soxnaam mën na faa dugg wala ahon kay mën na faa dugg déedéet comme ñu naan boo soxlaa bolog nee ko jottali ma ko foofoo wa illa boo fa duggee wax ay wax yoo xam daal dafa dama xam wax yooyu fu mu tege yooyu amul déedéet li am daal mooy nit ki na fexe ba ki moom ay gi na ko jox ay gi moom moom ay gi moom la war a àndal te it wax dëgg yàlla tamit nag jaaduwut mu bàyyi ko fa dem dem feneen comme exemple ni ko ñenn ñiy defee war a aye fële au lieu que nga teel a dem déedéet toog fële ba waxtu wa kee moom yëpp jeex nga doog koy joxe ka ca des loolu ci ñàkk maandu la bokk kon ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu sallam ala muhammadin bañ a fàtte dimanche bi di ñëw incha allah abar jàll ba moo ñu defal wax am na benn waxtaan bu ci tàmm